maaleykum sunu mbokk auditeurs yi ñu ngi leen di nuyu ci Sud FM seen rajo 98.5 ñëw ak yéen ci rétro sport rétro sport tey bi nag lañ koy tijjee mooy ndam li nga xam ni xale yu jigéen yi am nañ ko équipe national bu Sénégal ci tournoi UFOA bi nga xam ni euh, dañu daje final ak Mali gagné ko trois buts à 0 muy tournoi boo xam ni nag ñu ngi ko doon organisé ci wàllu jigéen ñi tey ñu jël ndam li muy ndam loo xam ni ndam lu am solo la kooku nañ si dellu si. dinañ waxtaan tamit ci Ligue 1 bi treizième journée bi ba tey rek Teungueth football club moo nekk en tête te amagul benn défaite dinañ ñëw tamit ci résultat yëpp ñu dem tamit ci karaté bi ndax xam ngeen ñaari tali karaté club euh, mooy championne du Sénégal ci wàllu scrap tamit championnat du Sénégal euh, saw bu Guédiawaye moo ko jël. Euh, ci wàllu basket bi nañu waxtaan ndax Baba tànjan la ñu def léegi président Saint-Louis basket club. ba tey dinañ waxtaan ci national 1 bi cinquième journée bi waxtaan tamit ci national féminin bi quatrième journée bi waxtaan tamit ci làmb ji ci ndam li nga xam ni euh, Franc am na ko ca arène nationale ba ci digganteem ak bébé Saloum def na ne El Hadj loolu mooy waxtaanu tey bi. jërëjëf El Hadj Pape ñu ngi nuyu ñu mbokk déglukat yi yow wax nga ko nag Sénégal euh, am nañ ndam lu njëkk coupe bu njëkk ci wàllu jigéen ci football féminin. loolu nag euh, samedi lañ ko am seen diggante ak Mali ci tournoi UFOA Dame bi amoon fële ca Sierra Leone Sénégal gagné Mali 3 à 0 euh, am meilleure joueuse ak tamit am meilleure équipe di nekk ndam loo xam lu am solo la mm-hmm. euh, boo xoolee tamit ci liñ jaar ci wàllu préparation bi nga xam def nañ ko 4 mois xamul lu mooy doon fi benn jour ak président Djibi Wade rek centre yi nga xam ne am nañ ko muy centre technique Jules François Bocandé ak bi nekk Guéréo moom mooy tax léegi di faciliter regroupement yi saa soxla équipe bi nga ole ñu regroupé wu Euh, donte sax liggéey bi des na ci wàllu commodité waaye itam mën nañ fa regroupé wu mën nañ fa regroupé wu. Euh, mhm. bu gërëm bi Youssou Ndiaye lañ ko tuddee. Youssou Ndiaye lañ ko tuddee Youssou Ndiaye président Youssou Ndiaye waaw Youssou Ndiaye ancien ministre des sports ancien président ancien président de l'Union sportive de Gorée. du président euh, du conseil constitutionnel. ancien joueur. ancien bien sûr ah, grand joueur ah, un grand joueur mu ngi noonu. Gorée à la Saint-Louisienne. <laughs> voilà mu ngi noonu mu ngi noonu moom moom lañ ko tuddee te tam loolu projet am la woon. bien sûr bu fi nekk ministre des sports. ci ay moo moo leen may terrain donc loolu tamit histoire Tiendra ci la bokk. même ligue professionnelle bi sax ci ñi nga xam nañoo bind kayit yi ci ligue professionnelle bi ci la waaw ci ci ci ah, ci waaw yow jum topp ñu ko donc mu nekk un sportif aguerri waaw de haut niveau <laughs> olympique olympique bokk si yow di sportif de de très niveau moom lañ ko tuddee donc loolu dafa am solo <laughs> loolu dafa euh, bu mag. bu bu mag. ba pare yàlla def nga couvert de gloire yàlla tam mu yëngu mu yëngu ci wàllu yoon. nit ñi xam ko baax a baax ci li nga xam moo yàllu yoon sant boobu sax moom moo leen ko may bu tuddee ko ko Youssou Ndiaye. bien sûr projet bu mu amoon la. yàgg na yàgg na ci nag waxtaan. voilà ak ci mel ni Pape Diouf. Mhm. ñu jéem a seet fay def mais avec le temps. Mhm. puis quand il a la retraite dem Ndar. Mhm. ci la comme booyam la. waaw poulain la waaw. soo moo ko jox présidence bi. Mhm. ci assemblée générale la ko joxe ñëpp ànd ci tamit. te mhm. gis nañ liggéey bu mag bi nga xam ne tamit Augustin mi ngi koy liggéey. Mhm. ak reconnaissance bi mu am ci moom xam ni magam la kilifaam la. ndax tamit euh, ku respecté Augustin la moo tax mu wóolu ko ba ñu xool équipe bu Gorée. mu nekkee président moom bi muy bàyyi. donc kon moom la Augustin remplacé Gorée. waaw moom la Augustin remplacé mais sur amul amul élection amul dara su proposition <laughs> uh-huh. ñëpp a toog bureau bureau comité directeur beeg supporter yeeg ñëpp toog bi Youssou Ndiaye waxee loolu ñëpp ànd ci kenn tegu ci baat uh-huh. donc c'est un bon choix uh-huh. te it Augustin koy wone depuis qu'il est à la tête de l'US Gorée à la tête de la fédération donc terrain boobu comme li nga wax Youssou moo ko jox fédération bi donc buy euh, ndam amee lu mel na noo tax ndax xam nga regroupement pendant quatre mois. li aussi isolé et tranquille c'est extraordinaire pour une préparation d'un tournoi moo tax it xale yi pendant quatre mois xale yu jigéen yi liggéey nañ fa ñuy tamit féliciter entraîneur bi. Mhm. Mame Moussa Mame Moussa dañ ko dañ ko déglu léegi sax. puisque équipe bi gëj na egsi ci niveau bi. Mhm. gëj na sax dem kaan. Mhm. donc espoir bu mag la ñu am di encourager tamit waa fédération bi di leen féliciter ak ak techniciens yëpp nag. ndax léegi kii c'est travail technique. qui a été effectué. moo indi résultat bi donc ñu ngi gërëm président fédération di gërëm directeur technique national bi Mayacine Mar ak collaborateur yëpp ci liggéey bu mag bi nga xam ne ñu ngi koy def au niveau de petites catégories puisque mhm. les résultats sont là mhm. et parlent d'eux-mêmes donc je crois que lii lu am solo la Malick puisque jigéen ñi def ci am ay pays yoo xam ni ñoo ko dominé. Mhm. ku ci mel ni Nigéria. Ghana ku ci mel ni Ghana. ak Mali sax ci ci ci ci donc Mali nga ñoom. Mhm. ci buuxanteeg ñoom waaw ci troisième niveau bi. Mhm. mais place yu jëkk yi ñoo ñoo ko jël. ak Cameroun. moom dinay dem final donc loolu tamit dafa war. sax c'est les pays les plus réguliers ci mondial yi. parce que ñoom ñoo fi mën en Afrique. donc les efforts fournis par l'équipe du Sénégal dans ce tournoi là. c'est c'est c'est extraordinaire. <laughs> xanaa dinañ def lu déglu ci Mame Moussa Cissé. parce que mm-hmm. match bi jeexee eh, jot naa ko fële ci Sierra Leone. Mm-hmm. mu dellusiwaat ci match bi bilan global bi nga xam ne Sénégal def na ko ci participation bi. Mm-hmm. asa ñu ànd ak Mame Moussa Cissé. waaw euh, ñu sant euh, si résultat bi nga xam ne am nañ ko tey tey mën nañu am satisfaction ak fierté euh, pour peuple sénégalais bi nga xam ni lii mi ngi koy xaar ba ba léegi mais du leen lu koy indi lu dul liggéey bi nga xam ne liggéey nañ ak xale yi. bi ñuy tàmbali euh, tournoi bi euh, vraiment ñi ñi yeneen équipe nañu gisoon notamment Mali bi nga xam ne joué na tey final parce que suñu équipe bi euh, ma fàttaliku ko bi ñu tàmbalee liggéey bi ñeenti weer la dañu nekk ci phase de rajeunissement renouveler effectif bi à 60 pour cent indi ay xale donc dañu ñëwoon pour jàng si si tournoi bi mais bi ñu yegsee demi finaal gis équipe bi fi ne euh, xale yi gis nañ ni amoon nañ possibilité pour arriver au fond moo tax euh, xeex nañ ko euh, tey bi ñu ñëwee fii si Makeni nga xam ni terrain bi baax na par rapport ak terrain bi ñu doon jouer tey xale yi déroulé nañ seen jeu indi densité sur le plan défensif une organisation tactique pour empêcher adversaire bi mu dugal e puis ñun ballon yi nga xam ne am nañ ko ñu dugal si 3 Mali musul enkese but si tournoi bi mais tey jël nañu 3 buts ça veut dire que ni c'est une équipe boo xam ni soo ko teeloo mun nga am dara si ñoom et puis seen potentiel offensif bi yëpp tey permettre leen ñu loolu donc pour man c'est une grande victoire pour euh, xale yi et vraiment ñu ñu leen di remercier di leen féliciter mais di remercier aussi la fédération ak la présidente euh, de la commission féminine bi nga xam ni ménagé wul benn effort pour que ñu yegg ci fii ci niveau bi di féliciter aussi le peuple sénégalais. naa dégg nga ko Pape seeni moom sax ancien ancien international la. waaw nekk tamit ku yëngu ci tasum xibaar RTS la nekk. waaw bu mag a mag a mag bi mu bàyyee nag ci la ñëw. jël jël section féminine bi. place am la moom moom moo ko jël tamit ci collaboration bi xam nga ko def ak presse bi. parce que saa yu match yu jeexee. moom moo def interview parce que xam ne liggéey bi naka lay demee. elle est de la presse voilà elle est ko lu am solo donc Mali bi yaakaar na moo fi mën Sénégal ko. bien sûr waaye nag Pape ndam yi ko war a consolider dëggal ko. xam nga waa ndam waaw lu ndaw du ndam lu mag du du ndam lu waaye ndam la loo xam ni mën na di yaakaar parce que c'est le premier titre Afrique premier titre en football féminin du Sénégal mosuñ ko am mhm. ñu war a jëm tamit ci beneen double confrontation suñu mhm. diggante ak ak ak ak Libéria ci mhm. éliminatoire CAN féminine Libéria sax xam nga moo jël troisième place moo jël troisième place moo gagné Cap Vert un but à zéro moo gagné Cap un à zéro donc Libéria tamit suñu équipe à prendre au sérieux à prendre au sérieux waaw xam nga gis nga suñu match moom ni mu meloon mhm. c'était un peu difficile mhm, c'était un peu difficile comme li ñu wax rek lii dafa doon loo xam ni dafay war a ubbi maanaam bunt bi nga xam ne xale yu jigéen ñi dañ si war a dugg pour mhm. egg ci niveau africain bi ndax équipe bi nga xam ne ñoo dominer tournoi yi de manière générale dañ koy dominer mais lii Sénégal def defe naa dañ koy yéex a def dañu rajeunir équipe bi ndax tamit mais euh, yaakaar comme équipe bi rek lay place yi dañ koy jël ñuy dem toog bu fag ne ñoo ko moom ak yooyu noonu. et booy jéem ak jigéen am ay doom. même góor sax boo jëmee mag da nga war a bàyyi place euh, mm-hmm. bu mag doom beneen affaire la. Mm-hmm, mm-hmm, mm. war a toppatoo doom ji euh, war a toppatoo këram et tout ça c' un peu difficile. donc am na âge boo xam ne boo ko amee dafay metti donc dafa doon compétition boo xam ne li gën daal mooy di joué xale yi. man li ma gëm ci sport moom mooy xale koy def xale yi expérience bala nga koy am il faut nga commencé am expérience boo commencé doo ko am mukk c'est souvent loolu la ñuy souvent Aliou Cissé to équipe ay xale la nañ xaar rek déedéet mm-hmm. Mbappé il n'a même pas 23 ans mu toj France ñoom ñoom Coman mm-hmm. ñoom Martial mm-hmm. xale moo war di football xale sport xale koy def mm-hmm. boo commencé doom expérience mais xaaral boo demee ba am vingt cinq ans vingt huit ans day fekk nga jëm mag à partir de la jeunesse ngay commencé di am mais Ismaïla Crépin rek wane nañ ko wane nañ ko wane nañ ko mais ñooñu moom il pouvait pas les refuser mënu leen woon bañ ñoom sax yéex nañ dugg ci. bien sûr bien sûr xam nga Ismaïla bi mu def fii contre Casa Sport. 4 à bien sûr que loolu rek waroon nañ ci bàyyi xel. Mhm. Euh, a mag gis nga final ba na mu demee. <laughs> bien sûr match bu metti ñoo Casa. Mhm. boo mujjee 4 à 3. une grande bu mel noonu. Mhm. gis nga ko da comme li nga wax teel dugal ci équipe bi. xaar xaar xaar bi dafay tax. mag ñi di fi yàgg rek. am te football xale moo koy def. xale xale moo koy def donc nañ jéem a régénérer équipe bi puisque parfois boo gisee tournoi bi ñu mujj dem ci A bi dem final ak Algérie gis nga Algérie ni mu ñu dominé ci ñaari match yëpp. Mhm. donc loolu dafa wane ni fraîcheur bi nga xam ne ñu ngi ko doon séntu amuñu ko ndax équipe bi barul woon ay xale. Mhm. je crois que Aliou comme que defa nekkoon ci ay test di xool ba egsi ci niveau bi mu egsi ba dem coupe du monde je crois que léegi moom ci wàllu boppam il aura compris que football xale moo koy def. xam nga bu ñu disuwaat tamit ci ci jigéen ñi sax nañ sax euh, léegi nag ndam ñi dañ ko war a dëggal maa ngi wax léegi ils vont vers une double con elles vont confrontation contre le Libéria ci mois d'avril bi lay doon di match boo xam ne dafay am solo trop jëm ci wàllu qualificatif ci ci ci ci ci wàllu ci ci wàllu bi beneen équipe bu distingué mooy u yi parce que mhm. ñoo gagné coupe arabe U20. bien sûr dañ leen invité dañ leen invité woon. Mhm. ñu gagné ko comme le Danemark en voilà voilà ils ont survolé également la compétition survolé ko. non bien sûr gagné Tunisie en finale 1 à 0. bien sûr mu nekk tamit lu. gagné Tunisie gagné Égypte. gagné Égypte gagné Tunisie donc mhm. tamit mu nekk loo xam ne lu am solo la. ci ci loolu yëpp mooy li nga wax tey ci journal bi rek. fruit la li regroupement beeg centre de formation ak vision bi nga xam ne am nañ ko baax na trop il faut ñu sukkandiku ci loolu pour. préparer la relève. ci équipe nationale yi nga xam ne nag ñu ngi ciy jëm muy équipe U23 beeg UV yëpp. équipe yëpp ñu mën ci xale yi catégorie mën cee bokk. gën a mhm. gën a gën seen bopp. Mhm. alors euh, Pape euh, le temps tamit ñu ñëw ci wàllu football bi tamit ñëw championnat bi xam nga ñu ngi waajal tamit double confrontation Sénégal ak euh, ak ak ak ak Guinée Bissau. Mhm. nga coow lu sax ci wàllu coronavirus bi. mais ministre bi def na conférence de presse keroog. nee il n' pas question annuler bonne suspendre compétition sportive yi. Mhm. loolu defaguñ ko. Augustin demoon na Thiès ci CRD bi wax tamit ne dañ jël ay matuwaay pour éviter propagation virus coronavirus bi. Mhm. pour ni ñu sànni ci match bi ñëpp jàmm ak ah, mhm. parce que CAF tamit y commission médicale de la confédération africaine de football bu ciy bàyyi xel bu baax a baax. joxe instruction joxe instruction ñoom tamit. ci dëgg gi tamit CAF lay concerné. ñoom ñooy xool parce que comme seen compétition la ak FIFA est-ce que le match va se jouer ñoom ñu apprécier selon la situation. Mhm. xam nga yëf yi dafa laal dëkk yu bëri. Mhm. laal na Algérie laal na Égypte sax am na ko fa ñàkk bakkanam laal na Maroc laal na Cameroun dëkk yu bëree bëri mu ngi koy laal yoo xam ne ñu ngi war a abriter ay compétition donc ci loolu nag CAF dina apprécier xool ban situation par rapport ak situation bi naka lay comporté woo ak li nga xam mooy si di coronavirus en tout cas fii ci Sénégal moom ministre wax na ne conférence de presse bi bi muy wax. ñu décaler mbal suspendre mbala annuler toute compétition sportive parce que situation bi mu ngi nii nee këtt na jon dañ ci liggéey ministère bi ñu nekk wàllu euh, mm. wàllu paj gi ñoo ñooy apprécier est-ce que dañuy tëj match yi kenn du ko def wi koloolu bi agg foofu daal mais pour l'instant daal duñ tëjagum match bi double confrontation boobu tamit Pape dafa nekk match boo xam ne bu am solo lay doon xam nga suñu diggante Guinée Bissau souvent voisinage bi voisinage bi ak nga xam ne am na ko yaa ngi fàttali keroog bi ñu éliminé ci coupe du monde éliminatoire coupe bi ak biu bi ak keroog premier match Mbaye Niang ak équipe nationale bi match bi nga xam def nañ ko rek ca ca Bissau mais souvent c' est des xam ne yu métti lay doon ci ci ci ñaari équipe yi ci contexte boo xam ne tamit gis nañ ne suñu deuxième gardien Alfred Gomes dafa gaañu Aliou comment il va faire kan lay jël mu góol est-ce que dafay pioche ci équipe locale bi dafay jël ñoom jaari Kobali Ndiaye loolu yëpp moom moo ci mën a tontu. Koulibaly aussi. waaw Koulibaly tamit Koulibaly situation yoo xam ne yu am la. difficile moo tax ñu wax ne équipe bi ubbi ko daf ciy baax. Mm-hmm. xale yi nga xam ne nag euh, gis nga keroog Olympiakos euh, euh, le gosse Bala match bi nga xam def na ko. Mm-hmm. Pape Abdou nga xam def nañ ko a a ci équipe ah, bi. nga xam ne contre Arsenal. contre Arsenal. Mm-hmm. ak bii ko match donc ñooñu c'est des joueurs yoo xam ne on peut compter sur ñoom. mais équipe bi waruñ ko jël tëj ko rek pour teg ko pour Pape Dia ak Malick déedéet dañ ko war a ubbi képp koo xam ne les bons jours du moment la ñu di convoquer mais pas ay sentimentalisme ak déedéet. non non je ne pense que comme li ma la expliqué rek Aliou c'est l'entraîneur direction technique baa ngi fii fédération baa ngi fi ak tamit les responsables de la fédération yoo xam ni daf ci am ñoo xam ne football nañu xam football ba dañuy waxtaan ak moom parce que boo seetloo. sax am changement dafa xaw a dëgër bopp même rek mu ñëw. dafa xam nga am na ay changement yu bari li ñu ko daan wax te mu bañ ko def finalement boo seetloo ci match yu mujj ngi koy def. Mhm. ay joueurs yoo xam ni public bi dañ leen réclamé mu bàyyi la moom lañ ci biti léegi dugal leen ci équipe bi genre ay Abdou Cissé yoo nga xam ni ay centraux la ñu mhm. ba pare bu ñu amee absence euh, euh, ci axe central bi muy dem di jëli ñoo xam ni ay milliers lañ pour yóbbu leen fa donc loolu ça pose problème mais je mhm. crois que loolu yëpp ay tests yu mu doon def la te il a eu assez de temps pour pouvoir Euh, savoir maintenant ce qu'il faut faire. Mhm. ndax xam na ni fi mu nekk éliminatoire ñëw nañu te it match dafay difficile amul adversaire boo xam ne da nga yaakaar ne yaa ko mën rek gagné ko. Mhm. loolu amatul ci football. Mhm. léegi Guinée Bissau bii nga xam ni euh, moom la war a dajeel bul fàttaliku ni dem na Coupe d'Afrique. te it prestation boobu fa def c'était pas médiocre. donc adversaire bu sérieux la Aliou ci boppam il a assez de temps pour yi nga xam ne dañu blessé ak pourvoir mu léegi euh, on s'approche de lui et on parle beaucoup avec lui pour lui dire que voilà la meilleure voie à suivre bien que yow yaay entraîneur yaay décidé mais ñun daal conseil bi ñu lay jox mais yoon wi mooy yoon wi nga xam ni dafa gën ndax loolu les gens sont un peu impliqués maintenant le président ah, de la fédération parce que bi moom mm, moom ah, ak yenn choix yi mm-hmm. ndax quand les gens ont que Aliou Aliou du ko attaqué c'est parce que parfois dafa am choix yoo xam ne dafa def te nit mais nag il faut aussi reconnaître équipe bi am na niveau boo xam ne yóbbul na ko fa quel que alpha même bu fekkee dafa am ay joueurs yu baax ndax am joueurs yu baax ça ne veut pas dire forcément que da ngay am résultat donc ñu ngi koy félicité di ko laaj mu def assez d'ouverture di déglu nit ñi di waxtaan nit ñi tamit ndax football bi comme li nga wax ñëpp ko bokk. Mhm. xam nga keroog Ousseynou Ba boobu nekk Olympiakos ko Pape Abdou Cissé nga am ay euh, oh, nga am ay joueurs. de de métier. Mhm. défenseur de métier. ci ci poste yi ngay outil militaire pour reconvertir ko. Mhm. cest dire man li ma xamoon ci polyvalence mooy bu amatoo solution. Mhm. tant que a une solution waroo waroo jouer sur la polyvalence. waroo jouer sur la polyvalence. koo xam ne militaire lay jouer. mais nag bul fàtte ni tamit. Euh, euh, Kouyaté a été a joué dans. waaw sa carrière. il a joué arrière central. d'accord mais xam nga Pape. joué actuellement dans son équipe il ne joue plus arrière il a joué Arsenal xam nga joué ko joué ko mun nga ñàkk repère yi mhm. ça mun bokk la ki nga xam ne da koy joué régulièrement mhm. ki nga xam ne ils se sont métier de mhm. prédilection moom lay joué par exemple Pape Abdou Cissé ak xam ne defoon nga ko mili xam nga lu indi ci milieu bi est-ce que tu encore les capacités pour jouer axe central il y de questions qu'on se la preuve bi bi nga xam ne jël nañ contre Algérie keroog ci finale bi retard la ci marquage bu mu def

loolu loolu mooy logique bi. Mhm. alors ci ci wàllu championnat bi tamit gis nañ ne euh, c'est jeexal nañ ligue phase aller bi. Mhm. phase aller bi jeex na. Mhm. mais Pape il faut ñu taxaw ci Tëngéej. Tëngéej def na. treize matchs de différence entre moom ak Dofane. def na douze treize matchs yi dix victoires trois matchs nuls vingt deux buts marqués six encaissés. aucune défaite aucune défaite. invincible à la phase aller. c'est du c'est du lourd. c'est du lourd. c'est du lourd xam nga keroog bi ñuy waxtaan ak Youssouf Dabo coach bi dafay wax tra méthode la. Mhm. c'est-à-dire foofu tout est lu tegu ci yoon la. Mhm. xam nga lu tegu ci yoon day lu tegu ci yoon la. ku nekk ak sa nekk sa poste y a Alassane le directeur technique national fait un qui na qui abat un travail y a le coach Youssouf Dabo boo xam ne il aguerri. ci championnat bi jot na def Guédiawaye def Stade Mbour yàgg ci équipe nationale petite catégorie. xam lu bëri xam lu bëree ba pare tamit Tëngéej am lu am solo ren jii mooy. ils ont terrain ils ont le terrain. bi ñu am ils ont Galandou Diouf. Mm-hmm. joué ce soir. ah joué ce avantage. dem terrain ba. am seen public. Mm-hmm. am seen public. Mm-hmm. am ñu am ñu ngi di. vivre proximité bi dafa am solo. les gens vivent l'équipe au quotidien donc ça c'est important donc résultat yi man. personnellement man man euh, man bettuma. bien sûr ci li nga xam parce que bokkul ak ay jaraaf bi nga xam ne ngay ut. ils boo entraîné ji ñoom amuñ loolu il faut il faut s'aller s'entraîner quand ils veulent au Stade Ngalandou Diop. donc loolu terrain bi. dafa nekk avantage bu rëy avantage bu mag a mag a mag a mag a a mag a mag la donc tamit ñoom euh, gàcce ngalaama ci li nga xam moom mooy seen seen parcours bi nga xam def nañ ko euh, bon ci yeneen résultats yi tamit gis nañ ne. douane moom tam dafa gagné équipe bi nga xam ne moom moo nekk. Mbour Petite Côte deux à un la ko la ko la ko gagné. waaw Duc Dumas Casa Sport gagné Dakar Sacré Cœur deux buts un. xam nga man Casa Sport li muy xaw a jaaxal ci moom. Casa Sport extérieur extérieur extérieur il est excellent c'est la pression du public. peut-être peut-être. peut-être. Le Casasport est très. Mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. mais la pression. Mm -hmm. je ne sais pas, peut-être Inès peut nous éclairer, mais c'est le c'est c'est ils en voyageant on doit en principe on doit perdre ses forces. Mm-hmm. mais ñoom à chaque fois. bu ñu voyagé mais fu ñu dem am nañ Casa. waaw du ñu wet fenn duñ dëkk. du ñu wet mais <laughs> voyage bi rek. waaw c'est pénible. Mm-hmm. mais li mu ñu jaaxal mooy bu ñu nekkee Casamance. Mm-hmm. duñ fa def résultat mais bu ñu génnee. jouer à l'extérieur. dañuy def ay résultats. boo xoolee victoire yu bari yi ñu am. à donc on se la question de savoir pourquoi. si a domicile du ñu am ay résultats kooku defe naa ni avant émission bi di jeex sax war na dugg. expliquer ñu loolu. sur le Casa. ça joue bien en tout cas à l'extérieur. c'est une qui joue pendant plus de quatre-vingt-dix minutes. donc avec des supporters ak collés à l'équipe. yoo xam ni du ñu bàyyi tant que match bi jeexul. ñoom tamit ñu répondre à ça. je crois que xam nga loolu loolu loolu daf da am solo man man bon je sais pas pression parce que amuñ public hostile waaw lu def loolu pourquoi à l'extérieur ils ne gagnent pas ils ne pas maîtres chez eux. ils ne pas maîtres chez eux loolu tam c'est autant de ah, que su ma juumee am nañ quatre défaites chez eux. ah non quand même. quatre quatre défaites lañ am quatre défaites lañ am quatre matchs ak quatre vic cinq mm-hmm, mm-hmm. donc mu nekk tamit loo xam ne lu am solo la. Mm-hmm. Casaport tam di sourire ginnaaw ba mu perte de ses deux ces deux xam ne ko jéewoon. gagné mu Njàmbur ak génération foot zéro bi partout Jaraaf gagné ñaari tali 2 à 0. tax mu placé Jaraaf. waaw Stade de Mbour gagné ko 2 buts à 1 2 tamit elle dans une très bonne dynamique. bien laaj fii keroog sax ne la ndax yàgg na joué situation yu mel mhm. nii. Mhm. et pourtant tout au début de la mm, du championnat. il bi yëpp def naa euh, au début. au début c' lu mat six match yoo xam ni ñoo nekk si dernière place bi lanterne mhm. mais ñoom. il n'a jamais été question pour le. changer entraîneur changer entraîneur bi. oui oui parce que ñoom dañu jàppoon ne si daal li muy liggéey. les résultats sont là les résultats yi kon Malick ñu dem ci classement bi. Mhm. Tëngéej moo jël première place bi avec 33 points deuxième douane 21 points gis nga 12 points la ko rawee. Mhm. Jaraaf jël troisième toujours avec 21 points. Mhm. Dakar Sacré Cœur jël quatrième avec 19 points. Casa Sport jël cinquième 19 points. Mbour Petite Côte huitième quinze points Union Sportive de Gorée neuvième quinze points Diambar dixième quatorze points Ndiambour onzième quatorze points Génération Foot douzième treize points treizième Ñaari Tali onze points quatorzième Sneps onze points mais affaire bi euh, championnat xam nga termination léegi jóge na ci jóge nekk. waaw mais élargement dafa serré. dafa non dafa entre boo xoolee 12 points 13 dernière. Ah, Gorée 9e la jël 15 points la am. Sénégal excellence bi jël 14 ngi am 12 points moo des moo des seen diggante moo des seen entre le 9e ba le 14e 9 points de seen diggante. Hmm, day na war entre le l'équipe classée sixième muy AS Pikine ak équipe bu Gorée ak ak seen excellence quatre points dox seen diggante donc quatre victoires deux victoires tu reviens donc loolu mooy euh, loolu moom mooy charme bi nga xam ne xam nga Pape souvent équipe yi ëppantewuñ doole dëgg la surtout nag à partir de de la deuxième partie mm-hmm. ndax peut-être à part nga football club bi nga xam ni dafa am douze points ci digganteem ak douane mm-hmm. diggante douane ak euh, septième bi muy euh, stade de Mbour mm-hmm. lu ñu rawante bariwul. Mhm. cinq points. Mhm. te gis nga tamit même même même même Sadio Mbour léegi moom tamit yéeg na mu il est à la il place léegi noonu. Mhm, bàyyi na bàyyi na kii Mbour Petite Côte. bàyyi na Mbour Petite Côte yéeg na moom tamit. donc ah, mais un point la ko rawee. un donc. victoire victoire rek moom moo ci am solo donc Pape ci Ligue 2 bi tamit. Euh, Africa Linguère ba tey Linguère moom elle est championne à mi-parcours. Ah, moom tamit xam nga seen treizième journée. xam nga ñoom moom tamit c' les problèmes extra sportifs daaw yi amoon. entre les dirigeants moo tax ba li nga déchiré woon. ba ba wàcc. entre y' a eu des problèmes fàttali le têtu. il est toujours là. il fait des résultats. parce que connaît il connaît le milieu. na ko. et récemment il a signé un partenariat avec. le avec. ak génération foot. c'est combattant la. combattant la a donc Duc Uzo. Iso moo gagné 2 buts à 0. Mhm. Port Demba Diop gagné ko 2 buts à 0 Port tamit c' est inquiétant. Mhm. Malick mhm. ay défaite rek lay tegle. Linguère gagné Thiès football club 2 football club euh, Sonacos gagné ko 2 buts o 1 Sonacos moom tamit en déplacement mu gagné Guédiawaye football club bi nga xam ne moo doon deuxième. tey jii nag Stade Kër Madior mooy joué ak Renaissance. Africa Promo J Fatick daf ko gagné 2 buts à 1. jamono Fatick ak amitié def un but partout. Mhm. donc première place bi euh, Linguère la moo am vingt huit points. deuxième Wakam deuxième Wakam. vingt deux points tamit. vingt mhm. ci suuf tamit port mu nekk ci dernière place bi. mooy Africa Promo moom Africa Promo. ñoom ñoo mujj waaw. ci national bi tamit. Mhm. Jeanne d'Arc dafa daanu démb. Jeanne dafa daanu démb. démb jamono xam nga tout puissant jamono tamit Pape euh, comme ñaari télé ak Touré Kounda rek équipe bu nawetaan la woon. Hmm. équipe nawetaan la tudd waaw waaw ci ginnaaw stade foofu la nekk Kaolack une grande équipe ah boo xam ne yàgg na produire ay grand de grands footballeurs mm, waaw ñoo tax ñoom nag ñoo dem août léegi bokk ci championnat bi comme ce qu'a fait ñaari ce qu'on fait ñaari tey ak équipe bi Turekunda moom moom lañ def maanaam football ba nga xam ne nawetaan daal jàpp nañu non war na mën a gis seen bopp ci seen champion national bi ci lañ nag dugg ci loolu entré nag infligé à la gendarmerie Dakar sa première fois xam nga nekk ah euh, euh, mooy euh, mm-hmm. de Wakam xam ne gagné nañ amul lu gagné ak Wakam coupe Sénégal championnat lu nekk gagné ak Wakam mm-hmm. fekk foofu mu mu ngi noonu nekk ñoo xam ne tamit c'est des joueurs yoo xam ne yàgg nañ ci championnat naa mu Ousseynou Sène moom sax jaar na Sàdd Mbuur mm, jaar na Sonacos donc moom tam c'est un vieux routier bien vrai que sax du mag mais yàgg na yàgg na toog ci dafa teel entraîné comme ay genre Ali Malick ay ay Malick Diop donc Jean Jacques tamit Pape xam nga yaa ngi koy tànk faral di wax souvent Jean Jacques dafa war di dellusiwaat mais dafa bokk ci football mais crise dafa yàgg mais mi ngi jeex waaw mais xam nga fi mu nekk ñu ngi national bu ñu bu ñu yéegee dañ dem Ligue 2 Ligue 2 la ñuy dem waaw mais xam nga samay yàgg naa ko wax samay crainte yeeg moom mooy est-ce que bu yéegee ak guñ foofu yëpp dina retrouver tout sa base. non bien sûr xam nga entre temps ah, xam nga yàgg wax naa ko fi keroog entre temps y' a les SICAP qui ont créé un club. entre temps y' a ñaari tali bi mm-hmm. yaa nga fa. Mm-hmm, mm-hmm. AS Kaffrine ak Olympique de Ngor deux buts à un pour AS Kaffrine. Gazelle gagné Cambérène quatre buts à zéro. Wally daan ak Saloum un but partout. tey nag ci Amadou Barry Lusitana moo fay joué ak Olympique de Ziguinchor euh, Yego di joué ak Pépinière Sud. ci stade Alassane Djigo tamit Renaissance bu Yoff moo fi joué ak Kayor foot mhm. Union sportive du Rail dafa gagné Racine de Dakar 3 buts à 1. Mhm. stade de Thiaroye ak Oslo def match nul 0-0. ak Université Gaston Berger UCS euh, Union Université Gaston Berger ak Assur 1 but à 0. Etix gagné avenir de Mbacké un but à zéro jamono gagné Jeanne d'Arc deux buts à zéro tey nag ci Ngalandou Diouf Darou Salaam moo fay daje ak Agel samedi Kawral ak Santhiaba dañu def machine nul deux buts partout Zig Inter gagné Ascolda un but bu Ziguinchor ak UEAS bu Sédhiou un but à zéro Coton ak Real Tacito partout euh, Don Bosco ak To. Clou cinq bi buts à 0 euh, Kaolack football club ak Passy amuñu résultat bi Kër Yaali ak Ngélémou 0 bi partout Espoir bu Kaffrine ak Union sportive bu Guinguinéo ñoom tamit dañu def machine nul 0 bi partout. Hmm. donc mu nekk loo xam ne lu lu lu lu lu am solo la ci wàllu ci wàllu classement bi Jean tamit Pape tout le monde souhaite son retour. bien sûr parce que tamit. <laughs> tout le monde voilà parce que ya ya yàgg yàgg nañ ko wax. Mhm. équipe boo xam ne la bu. dafa bokk dafa bokk ci football dafa dafa bokk dafa bokk ci football bi. dafa am leneen lu mu ciy yokk. Mhm, mhm, man samay crainte rek moom mooy est-ce que dina mën a trouver toute sa base affective. non mais ñu bëri. xam nga entre nga wax temps loolu xam na yàgg sax léegi mu am 10 ay ñaari délégués yooyu détaché nañu. am na équipe yu bëri yoo xam ni surtout ay Sikaab ak yooyu xam ni foofu moo leen seen base. Mhm. mais ba tey la Jeanne d'Arc reste la mhm. donc ce qui est sûr et certain bu ñu ñëwee waat da nga gis public bi ni muy yokkoo parce que seen absence dafa feeñ ci public bi. Mhm. ndax dañu bëri supporter. loolu moo tax ñu souhaité ñu dellusiwaat Ligue 2. d' abord avant ñuy ñëw Ligue puisque vraiment. on a hâte de voir la Jeanne d'Arc parmi football sénégalais. waaw mais ba euh, ba mm, ba yooyu passé na. Mhm. ils ont beaucoup appris de dans cette crise là. Mhm. crise bu leen yóbbu. te mosuñu mhm. dem dem deuxième division de. ak ak ak lu ñu def. jaloore yi ñu def ci football euh, continental bi ak football national bi. je crois que du disparaître noonu. il y a eu des mais qu'on va remonter. en principe en deux mille yaakaar nañ ni. dinañ bokk ci. non bu buñ buñ buñ buñ jubóoyee rek. seen problème ñu ñu ngi jubóo parce que il y a. mais je pense que résultat yi moom mooy moom mooy gën a. non bien moom mooy. non résultat yi mooy indi nit ñi. résultat moo indi. <laughs> résultat moo indi nit ñi supporters yi. bu fekkee résultat yi suivrul supporters yi en principe doo leen gis. am na tamit euh, ligue européenne des champions ak lu jëm ci wàllu huitième de finale retour yi. xam nga suba nag euh, match yi ñoo am bokk na ci. Leipzig ak Tottenham. Mm-hmm. Leipzig moo gagné woon euh, aller ba 1 à 0 la ko la gagné woon fële Tottenham. à Tottenham ah, waaw. Euh, Atlanta gagné Valence 4 à 1. Mm-hmm. Valence di ko recevoir. mais nag yenn match yi mercredi lay doon yi ñuy gën a soxal Sénégal yi bokk na ci PSG ak Dortmund 2-1 à l'aller. mais euh, à huis clos. xam nga tam coronavirus moo tax. Hmm, ah, mais mais mais mais

bal bi joué def décision bi tel n'a pas été le cas pour Paris l'équipe de Paris qui a joué à Dortmund n'était pas euh, la grande équipe de Paris qui a joué le Real de Madrid mm -hmm. qui a joué les grandes rencontres contre ay euh, équipe bu ci mel ni Liverpool euh, ndax gagné na Liverpool mm-hmm. gagné tamit ah def match ak Naples mm-hmm. deux fois nekk premier de sa poule ci phase de poule gis nga ni mu génnee mais euh, c'est différent ndax kii éliminatoire direct la mm-hmm. sur le sur aller retour mm-hmm. donc match bu difficile la ñuy jouer mais nag avec des talents comme Mbappé qui est un peu malade grippé euh, non non euh, avec un mal de de, la gorge ne s'est pas entraîné ce matin mm-hmm. mais yaakaar nañ ni qu'il va se rétablir avant mercredi mais le problème c'est que Paris n'a pas joué samedi. contre Strasbourg Paris que le match a, a, été coronavirus. waaw ndax coronavirus mhm. kenn du fa joué. Mhm. sinon match bi nga xam ne waroon na ko joué te joué ko gis nga ça un peu changé les choses beneen deuxième problème bu ñëw encore yu club bi. Mhm. donc muy ay xam ne ay handicap la pour moom. mais nag une grande équipe doit savoir surmonter les difficultés. te Paris comme que dañoo ay ambition je crois que. man sama souci. Dortmund mooy adversaire adversaire ji gën a moyen ci Ligue des Champions yi la. Dortmund ci la bokk ndax Barcelone bu joué ak Barcelone. amoo ak Juventus joué ak Liverpool xam nga normalement amoo Atlético. voilà amoo Atlético <laughs> donc adversaire ak Real dem ànd. mais est-ce que Paris tamit du question dafa ñàkk adversité en France parce que gis nañ ne. ah peut-être. ils survolent tout le temps le championnat en huitième de 12 euh, points le rabais avec un match en retard. en retard waaw. su ko laisse entendre qu'il avoir 15 points de différence. Mhm. digganteem Marseille li nga wax la. Mhm. ni mu survolé championnat bi. te amul adversité. Ah. loolu peut-être handicap la pour moom bu dajee ak équipe yi nga xam ni. xam nga boo xoolee Angleterre dañu tàmm adversité boobu. par exemple boo xoolee Angleterre tey par exemple. Hmm. samedi bu ne. ku ne sa nga gañe sa morom. du premier au dernier. ku équipe bu ci am mën nga détaché mais taxul nga ëpp doole sa morom yéen comme li Paris ëpp doole gars Espagne mm-hmm. Espagne bien sûr dernier bi day dóor premier bi bien sûr Real dafa ñàkk démb ah, hmm. dafa ñàkk démb ah, hmm. dafa ñàkk donc moo tax man jë bon c'est un c'est un avis personnel mm-hmm. manque d'adversité boobu noonu peut-être ak confrontation yi nga xam dafay am de haut niveau. Mhm. peut je rien contre ay Amiens ak yooyu noonu mais c'est c'est vite fait même si sax c'est. des Malick Amiens par moo pari 4 à 4 la ñu def. non bien sûr xam nga loolu yëpp c'est des signes yoo xam. Amiens par moment tamit. Euh, non Amiens il est imprévisible. non je te dis gis nga keroog mu def ak Marseille. bi mu joué ak Marseille ak match bi mu joué ak Paris. bi mu joué ak Paris premier mu mun ko 3-0. Paris am beneen problème avec son axe Thiago yéen ngi wax Kimpembe Kimpembe mais Thiago Silva tamit il est trop en retard sur certaines actions léegi. mënu am une trentaine d' ba pare. ñu naan comme li dal suñu joueur rek. année expérience expérience expérience je pense que Paris a intérêt à chercher un axe central boo xam. digne de son ngi négocier ak ñoom. Mm-hmm. Euh, Koulibaly jël na na appartement mm-hmm. mm-hmm. ak Paris. ba ñu ngi continuer di waxtaan pour arrondir les angles c'est une possibilité mu ñëw presse italienne bi tamit nee na y a de fortes chances que Koulibaly euh, vienne à Paris mais loolu tamit ay wax la rek amu ci amu ci benn preuve on va voir la suite puisque ñu ko soxla dañu bari. Mm-hmm. du Paris rek moo ko soxla. Mm-hmm. am na équipe yu mag yoo xam ne dañ ko soxla. Manchester Manchester dañ ko soxla. Barcelone dañ ko soxla. Tottenham ah, Tottenham ak Bayern donc ñoom ñëpp. ñu ngi seet daal éventuellement benn équipe lay dem mais est-ce que Paris euh, digganteem ak euh, euh, Dortmund mhm. jeunesse Dortmund mënu mënu mënu sonal. si c'est possible en tout cas match bi Dortmund def. Mhm. te xam nga Pape match aller Lucien de Fa Lucien Fabre. c'est un entraîneur très joueur. et puis il a de bons mhm. jeune. rapide. et déterminé vivace. ndax loolu tamit boo seetloo match aller bi. presque ils ont dominé presque toute la partie. Mhm. Paris euh, Paris am nañ fa ay éclair de génie entre Neymar et Mbappé ci bii bi ñu dugal mais dans l' ensemble de la partie Dortmund daf ko dominer. Mhm. mais nag léegi bul fàtte ni tamit match bi ñu ngi ko joué à l'extérieur. Mhm. mais bi yoon Paris reçoit à domicile. Mhm. donc mais mais mais ci sans public. sans public je suis d'accord sans public. sans public ci terrain boo xam ni yàgg nañ fa di recevoir. Mhm. donc am nañ fa. waaw mais avec avec le soutien du public. avec waaw waaw waaw mais nag xam tamit le public n'est pas là les euh, Allemands ne seront pas à Paris aussi. ndax tamit léegi. mais mais mais Paris moo doon avantage en Europe Malick Euh, supporters yi dañuy déplacer en masse. d' accord d' accord dañuy déplacer en masse. parce que moom c' est autre chose. Mhm, mais mais à l'aller Dortmund avait pu bénéficier du soutien de son public. am ce public. particulier voilà particulier oh, accrocheur oh. ne dañuy. ils sont avec leur équipe du début à la fin. comme Anfield. non comme Anfield voilà comme les pousser à la victoire. à la victoire bi ko Liverpool du dóor ko. Ah, c'est le public public bi mm-hmm, c'est le public. match bi nga xam ne tamit Dortmund def na ko contre Paris. Mm-hmm. le public a un grand rôle. parce que mm-hmm. public la boo xam ne c'est un spécial. comme Anfield rek. looy dugg dañuy woy di gunge équipe bi avant le match après le match. donc yooyu tamit dafa doon doole comme la wax c'est un pour Paris de ne pas avoir mais nag euh, il faut jouer avec. pour être qualifié il faut jouer avec. élimination huitième de finale mënuloo anticiper. c' ragal boobu noonu gis nga daaw contre contre contre contre United daaw. c' est possible gagné àll li ñëw fexe ba. oui oui puisque boo seetloo match bi ñu perte daaw. contre United. Ah, euh, Kerrer moo doon def rétrepasse <laughs> ah, euh, avant centre euh, Manchester jël ko dem dugalu ko seen gardien de but bi nekkoon. Buffon ah, fon moom tamit gis nga bal bi ko Lukaku dugal xaw Euh, seen beneen attaquant bi donc Paris n'était pas ce jour la euh, Paris mooy comme li nga wax peut-être antise ñu leen di éliminer mm-hmm. en général huitième de mm-hmm. finale mm-hmm. loolu mooy poser seen tête mais je crois que avec Leonardo qui est un ancien joueur avec un bon mental je crois que loolu war nañ ko dindi. parce que tamit da nga wax li am solo yi ñu ci def. normalement war nañu passer stade bi mais comme je le répète encore. Euh, Dortmund c'est une bonne équipe mais c'est pas une foudre de guerre. <laughs> waaw waaw c'est euh, moom daal moom ay Leipzig mm, mm. du Liverpool du mm. Atlético. déedéet entre nous. parce que ñooñu dañu habitué compétition. gis nga Atlético gagné na fi Juventus aller 2-0. match retour dañ ko dóor 3-0. Barcelone gagné na fi Liverpool 3-0 match retour mu dóor ko 4-0 donc. équipe yooyu ñoo habitué compétition bi. Paris nag comme que musul dem sax demi-finale. ak quart ça va être difficile mais comme je dis encore recevoir chez soi même sans ses supporters c'est un avantage psychologique. beneen match tamit que diggante Liverpool ak euh, Atlético Madrid. Mhm. une équipe difficile à manœuvrer Atlético Madrid. Mhm. Liverpool sax heureusement. mais écart bi Malick bëriwul mais xam mais non c'est important. mais c'est pas conséquent. c'est important. mais c'est pas conséquent. gagner c'est important. mais mais avec le score parce que euh, na. Euh, remonté un but. Mhm. Liverpool remonté deux buts. Liverpool. Euh, mhm. ndax gis nga. non non ci phase bi ñu toll moo tax xam nga semaine boobu. Atlético da ko gagné. Watford dóor ko 3-0. waaw mu nekk une phase très difficile bañ wax sax ne Liverpool. Chelsea gagné waat ko Chelsea gagné waat ko. waaw coupe donc mu nekk trois défaites ci ci ci en l' de moins de 15 jours. dañuy sonnoon rek. ça ça peut problème. non dañuy sonnoon Malick parce que xam championnat boo fait des mais mais xam nga xam nga tamit des efforts extraordinaires effort effort yooyu mooy rep euh, mooy répercuté ci ci ci seen yaram. quand l'adversaire s'appelle Atlético Madrid. daf parce que beneen niveau d' adversité ouais, mais ils défendent plus qu'ils attaquent. waaw waaw te dañ ils savent défendre. waaw ouais, mais nag ils savent défendre c'est-à-dire ñoom ils sont façonnés à l'image de l'entraîneur. mais c'est difficile. waaw ouais, c'est-à-dire ñoom du bon. gis nga toujours en fin de championnat dañuy sonn. dañuy non dañuy sonn bien sûr. de manière bi ñuy joué. dafa métti scientifique c'est pas scientifique. c'est pas scientifique dañuy def c'est pas scientifique. ah quatre-vingt-dix minutes ngay défendre. di dem di ñëw. <laughs> moo tax jour yi. bu ah. bëri de loolu moo tax ñu jóge fa. ah ah dañuy mën a. système bee métti dafa dafa métti dafa métti c'est le ah, système. amul repos. c'est le système amul récupération mais tant mais tant qu'ils sont dans la récupération ils sont difficiles à manoeuvrer une grande équipe. Une grande équipe. À l'image de l'entraîneur Bougan, de façonné. Même étant jour, il a comme ça. Mhm. Mhm, Mais tu l'as joué. Tu Mais avec Liverpool, tamit boo xoolee pratiquement man li ma koy li may jaaxal si moom mooy profondeur de banc pratiquement c'est le mun nga gëm sax wax onze de Liverpool. moo tax les joueurs sont fatigués. à la fin dañu dem ba. ils sont ils non seulement championnat anglais bi dafa metti. émoussé dafa metti. Mm. parce que tous les matchs c' des derbys. ils sont deux trois fois par semaine. voilà trois fois par semaine. Ah, loolu dafa tam amal beneen niveau d' adversité dafa dafay mm. compliqué. de course de combat. amul répit amul répit amul répit c'est un championnat très très dur boo ci boolee am Atlético nag c'est ça mooy loolu c'est un match difficile mhm. parce que l'Atlético ne s'avoue jamais vaincu mhm. demul foofu pour yaakaar ni dañ koy gagner déedéet euh, ils sont tellement bien forts mentalement avec seen entraîneur Simeone mhm. xam bu baax fi mu leen di placer ak ni mu leen di jouer loo donc c'est une équipe difficile mais comme je dis comme que 1-0 rek la gagné Liverpool Liverpool est capable de changer la situation. Mhm. Ah, mais mais, tamit Pape cette attaque euh, trio bi n'est plus n'est plus strident. ay mais dangereuse toujours et méfiante parce que tamit euh, quand tu as Salah Firmino et Mané ils sont capables à chaque instant de sortir le grand jeu. Mhm. te à chaque fois bu ñu ko defee dañuy am résultat puisque dañu am ay euh, surtout Salah.

même boo seetloo euh, euh, kii bi ñu doon joué euh, coupe du monde des clubs. Mhm. gis nga match yu mag yi mu def. Mhm. donc ak super coupe bi ñu doon def tamit entre ki jël coupe Europa bi. ak contre contre Chelsea Europa bi ak Chelsea. Mhm. def. donc c'est un joueur qui a des potentialités. mais mais je veux dire il n'est pas constant dans la régularité. il est dans une équipe où le trio fonctionne. muy Mané nekk nekk nekk nekk mu eggul seen niveau. voilà d' accord voilà eggul seen niveau. parce que ñoom. mais il n' est pas mauvais. non du tout loin de là. je te dis que moo éliminé Barcelone. Mhm. donc c' un grand joueur. il marque des buts mais du ñoom rek milieu bi nag. Mm-hmm. ak ak ak ak latéraux <laughs> yi latéraux yi c'est ça Liverpool. kooku c'est ça Liverpool. Mm-hmm. avec un bon gardien de but. Mm-hmm. mais qui est blessé qui ne joue qui ne pas le match. Becker excellent gardien de but. xam nga xam nga xam meilleur gardien euh, moo jël kii trophée Lev Yachine. xam xam xam nga Pape loolu loolu loolu mooy entraîneur c'est-à-dire lui quand il a perdu la finale contre euh, contre Real Madrid. il s'est rendu compte qu'il devait chercher un gardien. non non gardien da ko perte le match ba. donc donc man entraîneur da ngay am da ngay. non uh-huh. nag Ndiaye yow sax boo fa nekkoon da ngay changer gardien de but. <laughs> match final bi gardien de but bi di def. Uh-huh. ah bal boobu Benzema jël ci moom dugal ko ak deuxième bi bi mu jël. ah non non non kooku c'était prévisible qu'ils vont chercher un gardien parce que sans gardien de but on ne peut pas gagner. Uh-huh. li leen gis nga seen arrêt latéral droit bi. Mhm. ni muy monté. Mhm. dafay dem ba ci kaw. arrêt latéral gauche bi. seen milieu terrain bi. Ah, gis nga centraux mhm. bal arrêté yi dem di dugali ay bi sans compter milieu bi. te Matip ci banc bi léegi Matip il peut revenir à tout moment. je il peut revenir à tout moment. donc on va vers match boo xam ne. ah, ah match. très ouvert très si le score est important mais c' pas conséquent. Euh, c' est pas conséquent 1 à 0 moom mun nga ko qui sait défendre Atlético non, bien Madrid. sûr. elle sait défendre. oui oui waaw nag Malick xam nga bu loo mun défendre défendre boo jëlee but tu es de sortir. xam nga bu doon tey Bartholomew. parce que tamit. Uh-huh. boo jëlee but. sax yenn saa yi même en championnat d'Espagne dafay am difficulté. Uh-huh. bu xasee bu jëlee but. pour mu revenir dafay difficile. ah parce que bu dee bu jëmee ut égalisation ils ont perdu de grands joueurs. ah de très grands joueurs de très grands joueurs. ñi dem Inter ñi dem Barcelone. bien sûr un peu affaibli l' toujours là. voilà. l'âme est là. donc équipe la boo xam ni imprévisible capable de tout parce que boo gisee match yi muy joué en Espagne. ak match bi mu joué match aller ndax keroog dëgg la gagné nañu un but à mais ils ont beaucoup d' occasion. donc loolu dafa leen di jox confiance. en tout li ñu wax. du ñu dem euh, en file pour euh, en victime. Mhm. ils vont y aller pour maintenir pour avoir un bon résultat. Mhm. mais comme je dis Liverpool dans un grand jour. est intenable. Mhm. intenable. intenable intenable. Pape ci Ligue africaine des champions tamit Orea qualifié na ci li nga xam moom moo nekk wàllu demi-finale yi. avec un excellent Lamine Ndiaye hier et il va le gagner 2 à 0. Hmm. aller un but partout à l'aller. un but partout pour demi-finale GG hmm. demi-finale. objectif bi bi ñu ko falee sax parce que man <laughs> jot jot nañu échanger euh, c'était c'était la demi-finale Orea àgg foofu noonu. l'objectif est atteint fi mu toll c'est atteint fi mu toll nii. waaw mais ñoom xam nga Lamine nag ci ci Afrique il il il a un nom. non il a joué plusieurs fois cette la la la. la Ligue des Champions. gagné na ko avec TP. champion d'Afrique du champion d'Afrique champion d'Afrique. donc tamit. Ah, bravo à bravo à. jeu final coupe du monde des clubs coupe du monde ak Inter de Milan donc bravo à coach Lamine Ndiaye bi nga xam ne def na lu am solo. Ah, def na l'histoire retiendra que c'est l'un des Sénégalais yoo xam ne mm. sur le plan africain moom def na ci lu am solo lu am solo moo taxit xam nga ñoom les ambassadeurs am Orea bi ñëwee fii ci coupe ci UFOA bi ci lañ commencé négocier ak moom mm-hmm. entre président Antonio Suarez ak ak traversé la ñoom yooyu ci lañ commencé di ko approché bu négocier ak moom c'est pourquoi quand la France est partie rek automatiquement aussi aussitôt mu jël parce que y avait des y avait des tractations en mm-hmm. cours te tamit euh, moo fa nekkoon euh, non non am nekkoon na fa mais après keneen moo fa nekkoon keneen moo fa mais keneen moo fa nekkoon mm-hmm. keneen a remplacé xam tamit Lamine loolu mooy force parce que mm-hmm. tamit oh. il a temps d'organiser de façon pare il a une équipe très joueuse parce que c'est à son image ni ko seetaan muy football man seetaan nu ma ko euh, il SCIB <laughs> ah, ak équipe nationale uh-huh. Maroc tamit am na deux représentants ci eh, parce que moom. Hmm. Euh, Al Masry lay dajal bu ma Maroc am deux représentants ci.

ci coupe ci ligue des champions bi tamit ñoom ñaari équipe yoo xam ne qualifié nañu. Mhm. parce que moom Égypte ñoo am ñaari équipe ci ci ci ligue des bi. Mhm. boo xoolee ligue des champions Raja bu Casablanca mooy daje ak Zamalek. Mhm. Zamalek Wydad di affronter équipe bi nga xam nekk Al Ahli. ci wàllu ligue africaine des champions Maroc am trois équipes. Égypte am na i infrastructure ak liggéey ak ak xaalis. ak infrastructure Malick. bala ngaa liggéey am foo liggéey. Mhm. am ah, ah am emploi. Mhm. xam nga Sénégal comme li ngay wax rek. Mhm. puisque mos naa ci waxtaan ak benn bés Cheikh bi Jaraaf éliminé Espérance de Tunis. Euh, mu ni euh, Espérance war nañu am ay trois terrains. sans compter euh, terrain bi nga xam ne moom la ñuy entraîner dañu am ay infrastructures. yenn équipe nationale yi ñu fa demee sax fa ñuy dem. Sénégal fa la nga xam ne loolu tamit dafa am mhm. solo mhm. loolu moo leen yóbbu ci niveau bi ils n'ont pas de problème d'entraînement mhm. ils n'ont pas de problème d'infrastructure à chaque fois bu ñu amee match fi ñuy entraîner xam nañ ko ak fi ñuy jouer. et nos meilleurs joueurs jouent là-bas. Moussa Ndaw liggéey dans le chef de début ak dëkk dëkk ah Aliou Casablanca. Aliou Aliou Badji bi nekkoon fii nii il est il est en Égypte maintenant. moo Norvège ñu jógee ñu transfert ko Égypte man d'ailleurs quand j'ai avec euh, un de ses agents nee na ma mais parce que al Égypte yooyu noonu amuñ dañuy envoyé noonu ay Norvège ak yooyu noonu. parce que boo xoolee sax ñoom avant ñuy génn ils ont hmm. moo tax moo tax moo tax moo tax ñu surveiller champion. mais dem nañu Jeux olympiques cinquante deux oh, mu ngi ñu ànd ak euh, publicité tampon bi. ngir massage bu jaar ci yoon taamu leen gamme Puro Valda. Valda Afrique ak Puro Valda ñoo leen di may seen émission rétro sport. waaw ñu ngi seen émission rétro ba tey xam naa nag la ñu ubbi antenne Pape. waaw maa ngi dugg ci karaté bi de. ñaari hmm. tali. Hmm. karaté club moo jël championnat du Sénégal. loolu tamit euh, ñu ngi ko amele ci compétition yi ñu doon def ci Scrabble bi tamit euh, Alsane Sow bu Guédiawaye mu gagné donc muy ñaari équipe yoo xam ni ñu leen di féliciter. Mhm. ndax sport bi du football bi rek ak basket bi. Mhm. Euh, karaté bi ci la bokk. Mhm. Scrabble bi quoi ñuy féliciter membre fédération yi tamit. ci maanaam liggéey bi nga xam ni dañ koy def ci coupe du Sénégal tamit coupe du Sénégal demi-finale yi ASFA. requin sanfu ak kirène ñoo war a mhm. daje. Mhm. ñoom ñoo génn ci tournoi bi ci sport mécanique yi tamit euh, Sandra Palou moo gagné maanaam course bi ñu doon def te jigéen ñi doon ko def muy course huit mars bi. Mhm. El Hadj fi mu nekk nag. Euh, basket bi ci basket bi. ndax xam nga Baba Tandian. mi nekkoon président fédération sénégalaise bu basket. moom la ñu def léegi président Saint-Louis basket club. ndax seen président bi ak problème yi ñu amoon depuis lors ak niveau bi ñu tolloon. Euh, moo tax bi mu ñëwee ñoom ñëpp. Mhm. à l'unanimité ñu jiite ko pour mu nekk président Saint-Louis Basket mhm. euh, Club ñu ñaan nag tamit. Euh, moom ak expérience bi mu am. Mhm. mu def loo xam ni quand même dina indiwaat Saint-Louis basket club parce que Saint-Louis basket club. xam nga moom moom moom moom oh, moom moom basket rek ndeysaan. moom basket la bëgg waaw basket la bëgg dina am dara ndeysaan. man damaa leen loo bëgg sonal noonu. <laughs> loo bëgg sonal noonu la gisoo gisoo sax avant candidat dafa présenté candidat ñu ngi amul équipe. daa <laughs> mën a mutu <laughs> équipe cinquième journée bi. Uh-huh. Euh, ci poule A bi Ja dafa gagné Sibac 64 52 Mermoz basket club gagné ISEG. 64 54 Union sportive de Wakam Douane gagné ko 64 56 Louga basket club gagné ASFA 85 64 kooku poule A ci poule B bi tamit Duc Université Gaston Berger daf ko gagné 79 76 Bopp gagné Rail 60 56 Saint-Louis basket club AS de Dakar moo ko gagné mhm. kooku ci wàllu góor ñi la. ci wàllu jigéen ñi tamit ju basket nañu quatrième journée bi ci poule A bi AS Ville de Dakar dafa gagné Débalok 88 à 36. Mhm. Mbour basket club tamit CEMT bu Ziguinchor gagné ko 70 51. Saint-Louis basket club ISEG gagné ko 50 à 36 ci poule B bi tamit IBC UCAD ak AS. Faux 48 62 pour Asfo saltige Jeanne d'Arc 36 31 pour Jeanne d'Arc Jaraaf ak Duc Duc moo gagné 71 à 32 ki score bi bëri na ah. El Hadj Malick 71 kon ba tey ci wàllu basket bi ñu wax rek ni ci poule A bi ci jigéen ñi AS de Dakar moo jiitu ci poule B bi Jaraaf moo jiitu. Mhm. loolu mooy résultat yi nga xam ne am na ci làmb ji tamit. amoon na xam nga ay combat yu am El Hadj Malick mhm. surtout arène nationale ba ndax tamit compétition yi malgré la grève euh, des arbitres mi ngi mi ngi continuer di am mhm. Franc nag moo fa doon bëre ak Bébé Saloum mhm. Franc dafa daan Bébé Saloum muy neuvième am donc Franc bi mu ñëwee ci lutte avec frappe bi ba léegi Malick amagul défaite Angleterre tamit dafa daan Madji Madji par KO ci bëre bi nga xam ne tamit euh, moom lañ doon bëre euh, Saloum tamit vainqueur de Saloum Petit Baye Fall moo daan Saloum en deux minutes en deux minutes. Mhm. Saloum 2 en deux minutes. Euh, bëri bi amoon tamit kër Waly Ndiaye booy Diola ak ab Ndour ñu mujj gagné ci poids lourds yi ak poids léger yi ci Adrien Senghor di septième bi tamit. Mhm. Battling Siki moo fa daan Moussa Ndiaye en finale. Mhm. loolu moo nga xam ne am na. galaay bi amoon ca mbaam nag dafa mujj. dañ ko mujj reporté ndax mbëriñ fa doon séntu finalement ñëwuñu mhm. donc ba tey El Hadj Malick làmb ji gis nga mhm. ñu ngi jooy combat yu mag yi mhm. mais ñu ngi séntu combat bi war a am ci diggante Siteu ak Papa Sow kooku le cinq la muy combat boo xam ne combat bu am solo la mais mais Pape man de euh, euh, samay crainte yëpp mooy Papa saw ci lu bees li mu dugg c'est-à-dire est-ce bu bees bu mu am équipe yàgg nañ ñooñu yaa xam nañ waajal combat ni Fass mu ne bés man daal samay crainte yëpp mooy waaw waaw ña fa nekk Malick waaw fa nekk ay mbër lañu mhm. te Papa Sow ñàkkul ñu ko wër ñoo xam ne xam nañu làmb mhm. am déjà yàgg na ci làmb ji mhm. mais comme li nga wax jóge ci écurie dem ci écurie esprit ba lay yóbbu da ngay ragal a perte su ma daanoo rek problème am ah, te bu daanoo problème am kay waaw bien sûr parce bu bees duñ seen ci mais def ko sa xel baaxul li nga war def sa xel mooy liggéey loo loo amee ndam ndax loolu bu ko defee sa xel puisque làmb moom li nga ci xalaat rek soo moytul moom ngay gis. Mhm. da ngay gëm loo xam ne sax peut-être mënoo ko ba am ci dara. ah Pape loolu Modou Lo rek ko fi dafa Balla ah, Gaye ko kooku du nit. moo ko fi dafa moo Balla Gaye. gëm na danañu gagné. Balla tàmbalay sa bi la. gëm na dañuy gagné gëm na dañuy gagné. combat bi ñu doon trois minutes yow boo joxee ma jàpp du ma daan loolu lay wax. ñaari ndaanaan nga tudd. waaw loolu loolu lay wax moom. loolu te loolu lay jëfee. dafa am leneen lu ñu indi ci làmb mhm. ñoom ñaar. Mhm. moo tax bu ñu amee bis. nit ñëpp dañuy jaaxle. ndax koo xalaat ne war naa daan rek sa xel da lay indil leneen. Mhm. ndax ku ci nekk danga am qualité am talent. Mhm. mais comme li ma la wax avantage bu Balla mooy déjà sa corpulence sa mhm. taille son poids. ak tamit ses qualités techniques. ndax technicien la. du mag lu ñëw mun na ko lijjanti. Modou Lo tamit sa bravoure. ak euh, sa technique sa technique non sa c'est un grand lutteur. xam nga koo ma seen yëkkati ba ci kaw te laa Daniel mun nga bëri. Modou Lo kay nag c'est l'exemple même de la lutte. et son son courage très courageux. non c'est un garçon extraordinaire dans ce qu'il mhm. moom ban mbër lay rappelé ci mbër yi fi nekkoon mbër njëkk yi ay Mbaye Guèye Double yooyu. non man mi ngi may rappelé mi euh, euh, yi nga xam ni. pas Mbaye Guèye ci courage. noo xam nga Mbaye Guèye sax am na tuuti taay. Mhm. am na am na taay am na taay allah am na taay. mais moom Pierre moom Pierre la muy indil quoi que ñoo bokk taay ba pare Pierre nekk jàmbaar taay boobu la am ak poids motlo peut-être mais nekkoon jàmbaar ci biir pois lourd yi Pierre bu ku ko cëpp doole ak ku ko ci man sax buy bëreeg moom dangay ngay am jafe. ak genre Boston yooyu tamit. non non mo li muy wax Pierre ndax Pierre daan na Falaye te Falaye mm-hmm. neexul daan. Mm-hmm. donc Pierre man Pierre la may fàttali ak euh, ak Thèse mm-hmm. bu nekkoon caaro yi <laughs> grand lutteur. élégant beau technique ndax kooku ndeysaan maa ngi fàttaliku bëri bi mu bëri ak Cheikh Mbaba bi mu koy daan keroog arène euh, ma doon xulle yàgg na boobu xale la ñu bëri bu rëy la bëri ak moom ak ak bëri bi mu bëri ak barabara arène sénégalaise tamit ay bëri yu rëy rëy rëy lay bëri donc treize la muy indil ndax treize tamit peut-être euh, moog Modou peut-être ñoo yemoon taay mais tànk yi kenn du ko laal. Mm-hmm. foo ñëw ci yaram bi foo ci laal mu ànd ak yow nekkoon mbër mu mag donc mbër yooyu dañu amoon technique. Mm-hmm. mënoon bëri mën bés daan bëri nag régulièrement du ñu mhm. di bëri benn yoon ci at ñaari yoon mhm. donc man ñooñu la may indil bien avant ñoom Mbaye Guèye ak ñooñu mhm. parce que làmb tamit avant ñoom Mbaye Guèye am na fi ay champion yu mag genre Cheikh Mbab ay Treize Ndir ay Barabara ay Mod Jenn ay Sëñ Mbaye Ndiaye mais mais ñoom Mbaye Guèye ñoo ko révolutionné ah, bien sûr c'est que ñoo indi xaalis bi waaw ah, ñoo ko révolutionné Mbaye moom bi mu ñëwee beneen style la indi technique tactique, bravoure. non un grand un grand champion. un grand champion moom lu lan mooy différence am ak Tafa ci wàllu làmb. bokkuñu ni ñuy bëree Tafa combat da koy négocier Mbaye Guèye combat jàmbaar lay jaar ba am ndam. kon Tafa il plus tactique. Tafa il plus tactique mais Mbaye Guèye pas-pas que Mbaye moo am étoffe champion. waaw pourtant tam champion la de. non Tafa champion la mais, mais il a, certes, il sa génération mm -hmm. pendant un certain temps, mm -hmm. mais il n'a pas régné longtemps, comme mhm. Bégué. Bégué a régné longtemps. Mhm. C'est ça la différence. Mhm. Parce que tu as même ci biir génération bi euh, régné na mais règne bi yàggul. Bégué dafa jël drapeau bi parce que làmb moom il faut nga jël pour mais mais Tafa il savait négocier des combats. waaw mais mais mais nekkul Tafa di savait. waaw mais mais. cest à jëlul drapeau Mbengue dafa jël drapeau. non mm-hmm. grand technicien. <laughs> non c'est <laughs> wax de. day négocier. <laughs> Uh-huh. mooy li ma la wax Mbengue du négocier. Uh-huh. Mbengue il s'impose. Mm-hmm. c'est ça la différence. kii c'est un négociateur kii c'est un gars qui s'impose dafay ñëw imposer la ba am ci yow ndam moo tax bokkuñu ay ndam. Mm-hmm. mbay mbay. Tafa euh, ay spectaculaire. Tafa mhm. ay jëlam c'est-à-dire ay combats spectaculaire la. Mhm. Ah, ay jël yoo xam ne doo ko gis. mbéy nag jàmbaar lay daan ba ba daan man façon boobu moom a gënal kuy négocier. Mhm. man bëgguma mbër muy négocier. man mbër mu mel ni Balla Gaye laa bëgg. loolu moom loolu la jël ci mbéy gi il vient quel que soit ce que tu il s'impose et il te gagne. man su mais des fois ça lui porte préjudice mbéy gi la xaw a nuróol. style ci bravo ndax dañuy xuus jàll. Tafa C'est ça la différence. Sinon, Tafa, c'est un grand technicien. Mm-hmm, mm-hmm. moom c'est un grand technicien un grand technicien. mais mais ci bu ñu desewaatee ci Papa Sow ak Cité. Mm-hmm. lamb ji ci ci kan la war a tegu. xam nga Papa bu ñu lamb koy a wax yaa gën a nekk xale. Ah, mais te muy dëgg tamit. waaw dëgg la loolu lañ koy wax ñu ko yóbbu dañu ko naan yaa gën a nekk xale. combat bi yaa koy bëre day jël lamb ji papa bu ñëwee ci loolu lay bàyyi xel.

non différence d'âge bi kay li nga wax am na. suñ approfondir analyse bi. waaw y' a y' a la différence d'âge. entre temps jóge na ci écurie. Mhm. entre temps dem na mag. Mhm. entre temps kii mu ngi ñëw. Mhm. kii kii mu ngi ñëw. su fekkoon tey moromu magam xam ñoo bokk génération. c'est moins compliqué. même su fekkee sax man surtout jàpp naa ne man sama xalaat. dañ ko surévaluer. surtout jàpp nañ ko surévaluer man surtout combat yi mbër yëpp gisuma lu mu wane. waaw mais il a des qualités. kenn kenn kenn kenn ko ba pare. wax naa ko Max Bergane un jour Siteu du du euh, du. day fooyee bëri. day fooyee bëri. mais je pense que loolu. day il passe son temps. non yaa ngi fàttali que contre Sa Thiès. waaw mais war na ci génn nag ndax bu ko defee contre Sa Thiès def ko contre Gouye Gui. ñàkk je pense que bu ñëwatee dootul indi loolu. day fecc sama xalaat day fecc ndax ñu ko yoree. Mhm. il faut ñu wax ak moom ci côté. bien sûr mënoo bëree combat capital ñëw di fecc di naan yi il danse trop. il danse trop ba pare il n'est pas concentré. il danse trop il n'est pas concentré man ko keroog benn ku nekk ci équipe bi mu tudd turam sax mu ne ma non xale la ma ne ko waaw mais xale tam da nga koy. cadré mag la léegi sax da nga koy da nga koy cadré. ndax xale la boo xam ne il a de bons cachets. mu noonu ay grands combats lay bëri. da nga koy cadré ci moromam bi da nga koy cadré. comme li nga wax dañ ko surclassé. parce que am na ay moromam yoo xam ne non il a été surévalué non dañ ko ah, surévalué. ñoom non bien sûr. ay ñoom Ken Seck ay ñoom Boy Kaye. bien sûr bëriwul ak ñoom bëriwul ak ñoom. Ah, ak ñoom Boy Bawol. bien sûr te ñooñu war na bëri ak ñoom mais ñooñu ñëpp topp nañ ko mu bañ ne du bëri ak ñoom mhm. ñu ko yore tamit xam na li ñuy def ndax làmb ji liggéey la mhm. te ñu ngi ko yore am nañu expérience boo xam ne xam na nañu naka la ñuy téye mbër donc mhm. ñoom ci loolu la ñuy jouer mais mais Pape téye mbër bi téye mbër boobu souvent da leen di échappé ak moom ci buna bés yu mag yi waaw mais yaa ngi fàttali keroog waaw mais surtout jusqu'à présent mi ci loxo euh, ñoom Max d'accord waaw jusqu'à présent en tout cas saa yu waxee loolu lay wax c'est mon père mooy sama manager fi mu ma jaar laay jaar te je crois que mi ngi ci yoon woowu gis nga bërki bi mu dajee ak Papa Sow stade ba. Mhm. bi mu commencé tàng bi si yéegee ci kaw daf ko calmé. mu mhm. ngi soit reste tranquille mhm. bul yàq sunu sunu làmb te loolu la ñuy dugal ci bopp bi. donc Siteu il viendra le cinq avec beaucoup de confiance. mais na def attention. Ah. li mu expliqué ndax li nga wax différence d'âge boobu dama seetaan mbër mu mag mbër nekk ci jamonoom dajeeg mbër mu ko mag mbër mu mag ma daan. dama ko gis ba taay ci champion. waaw gis naa ko ci Mbaye Guèye ak Samba mhm. gis naa ko ci Mbaye Guèye ak Ousmane Ngom. Mhm. gis naa ko ci Moustapha Guèye euh, jour bi muy def anniversaire am. Lac de Guiers 2. de Guiers. du Lac de Guiers gis naa ko ci Mbaye Guèye ak Boy Pambal. Mhm. donc nit mën nga ko mag. bëre ak moom ba pare daan ko. bien sûr. gis naa ko ci gis naa ko ci Fodé du suba ak Demba Thiaw. dama seetaan yooyu ba tey c'est-à-dire ay mbër yoo xam ni dañu nekk seen apogée ñu dem jëli ay mbër yoo xam ni ils sont presque à la ah, non ils sont à la retraite ñu indi leen ñu daan leen gis naa ko ci Double Less ñu def ko ko donc c'est possible xëy na du bari mais c'est possible donc il ne faut pas sous-estimer Papa Sow dans ce <laughs> non am na ñoo xam ne sax ne nañ Papa mooy favori moi j'ai rencontré des gens bien sûr qui m'ont dit que Papa mooy favori bien sûr am na ñu ko ak résultat yi mu def ci làmb ji mhm. donc c'est un combat aussi sérieux pour Papa Sow que pour Siteu ils ont les mêmes engagements ñoom ñaar ñëpp combat bi Siteu peut-être comme li nga wax il a il a la jeunesse avec mhm. lui mhm. mais Papa a l'expérience te it papa tamit nee naa la daf fi daan ay mbir yoo xam ne ñoo ko sut. ñoo ko il est courageux. waaw euh, tamit na xam ne il a adversaire très sérieux. yaa ngi fàttaliku suñu euh, reportage bi ñu def euh, diggante Siteu ak Sa Thiès. Mm-hmm. yaa ngi ne ma yaa ngi mu ngi fecc rek. mu ngi fecc mu ngi fecc mu ngi fecc au mu ngi taxaw di ko xool di ko xool xam ne kii <laughs> nekkul ci bés. xelam nekkul ci làmb nekkul ci làmb. yaay mbéygee daf ko daan wax. Mm-hmm. nee na su mbéygee daan bëri. Mm-hmm. mu dégg pecc mi. xelam du dal toujours ma ko daan wax mhm. ni ma ko sa xarit bi mu bàyyi pecc mi pecc mi bëri bi bu ko toppee dootul xamante li muy bëri mhm. ndeysaan loolu la daan wax saa yu mbéy gi su pecc ma bëree fu ma toog damay tiit sax ni maire bi waxoon na nangam damay jéem a yónnee kenn ci mbéy gi mhm. ci ñi ma toogal ak ñi ma dendal fexe ba egg ci moom wala ku ko jege ni ko na wàññi pecc mi puisque maire bi ci boppam yaayam mi ko jur saa yu feccee xelam du dal ndax daf lay désorienté ma def ko ni na nga dem ca piste bi féete rëbës. nga bañ a mhm. taxaw ci tribune bi. Mhm. comme ça tëgg meeg pecc meeg supporters yi. sa xel du nekk ci ñoom nga concentré ci bëri bi boo ko defee da koy daan. mais boo bëggee jël de. du ma koy lépp daan xañ sa nawle lépp soo matul am la naqari. mais papa est-ce que xeex bi dina ko arrangé. non en tout cas. parce que man taayu Siteu mooy sama taay bi mu am ci moom. Siteu est plus grand et il a une revanche plus longue. voilà plus longue je suis d'accord. Mhm. mais nag papa tamit du dem di bëri ji combat bi ak techniciens yu ko wër di bëri bëri boo xam ni dafay arranger Siteu il fera tout pour empêcher Siteu. situation bi noonu naka la koy empêcher da koy jege. éviter ko mu mu mu mu jël coup. da koy jege da koy jege. da koy koy daan da koy jege. da nga koy jege boo kon da lay jot booy ñëw. da da da <laughs> nga koy jege. da koy jege da koy jege te da nga xool papa loolu def da koy jege. Mhm. parce que papa aussi à sa sait se mhm. mën na xeex de. non mais bien sûr mën na mën na xeex de. bagarreur la de. il sait se battre. boo seetloo bëree bi mu bëree ak euh, euh, Bac Seras. Mhm.

waaw mais papa xam nga dafa sérieux waaw il est très sérieux kooku moom mm-hmm. ñëpp ko wax ci moom mm-hmm. dafa sérieux et rangé ah dafa sérieux euh, ba pare ah, ba pare boole kooku yar mm-hmm. donc il est tel très calme te yëpp ay qualité la ci mbër tout à fait moo tax ma ne la bëri la boo xam ne bëri bu doy waar la tant pour Siteu que pour papa mais comme li nga wax papa jóge écurie dem former benn écurie bu bees si écurie bu toll ni Fass war a bëri ji te ànd ñoom te tàmm daan ànd ñoom ni ñu mënee bës ni ñu mënee bës mhm. ni ñu mënee bës xam boo daan bëri gis Mbaye Guèye gis Moustapha ah, Guèye ñoo xam ne yàgg nañ yàgg nañ ci am na bës bu ne am nañ ko ci làmb xam naka la canaliser ay mhm. est-ce loolu yëpp am na ko est am na ban loolu yëpp man autant de questions yoo xam ne ñu ko posé comme ni nga wax mhm. mais loolu ñu ngi koy xam le cinq parce que en principe équipe bu mag boo ci jógee dem di ba la nga daan am ci écurie boo ko amul sax ah la lay tere nga am ko mu néew. Mhm. ndax combat tamit dafa am yu bari yoo xam ne avant combat bi la pour nga mën a am ndam te je crois que papa du créer écurie bu bees bàyyam nekk ci écurie ba mu am quelques éléments yoo xam ne ñu ngi woon face. Mhm. donc Kandji euh, ki nga xam ni moo koy entraîné en boxe. Mhm. ak ku ci mel ni Balla Diouf. xam ni dëgg la deful carrière mais ci biir làmbam li carrière bi di gàtt yëpp. am na wone. bien sûr wàllu njàmbaar. ci njàmbaar ak wàllu bëri. tamit euh, xale bi dëkk Kaolack. Mhm. Euh, nekkoon équipe nationale euh, jël drapeau chef de l'État. Mhm. yooyu yëpp ay éléments la pour moom donc je crois ak Serigne Ndiaye. Mhm. donc xëy na loo mu amoon face bu amul lépp ñàkkul lu mu ci am. am na am na ci dara xam ne mën nañ ko taxawu. ci biir combat bi ba mu mën ci am ndam. mais comme tu dis ce sera pas facile. ce sera voilà du tout. ubbi antenne bi Pape si 88 628 98 98 ngeen di ootee. 88 628 98 98 ngeen oote tey nag luñ bëgg ngeen bëgg waxtaan ñu waxtaanee ko yéen rek mm. si 88 628 98 98 ngeen oote ñëw na yéen ci wàllu sacre beeg def nañ bilan euh, championnat bi national ligue 1 bi ak ligue 2 bi yëpp waxtaan nañ ci lu yaatu ak tamit wàllu double confrontation Sénégal Guinée Bissau équipe war nañ ko wala war nañ ko ubbi. allo waaw sëñ bi asalaamaaleykum allo Malick na ngeen def. sant bu baax sëñ bi. di nuyu euh, doyen Papa Dia. Mhm. di leen gërëm. Mhm. di gërëm tamit waa Pura Wala di wax sama gars yi ne nañu jënd Pura Wala daal nag. <laughs> Ah, d'Afrique. Pura Wala daal bi bi tax ñu ñu émission bi ñu ngi wax. Ah. ah teraanga teraanga koy fay. waaw wax dëgg. sama gars yi maa ngi leen di wax man man mii Racine maa leen di wax. na mhm. ñu ngi ñu ngi ñuy bégal. Mhm. ah ñu ne te te te loolu aussi buñ ko jëlee suñu suñu njëriñ la. Mhm. bon li ma di euh, li ma wax mbay gi ma daan mbay gi ndaanaan la woon. mais xam nga bu yàgg ba. ci la ci la combat ëppoon parce que bu yàgg mënoon nga bëre ñetti wala ñetti yoon ci at léegi mun nga toog deux ans doo bëre léegi mun nga toog deux ans doo bëre te la combat yi dafa cher. Mhm. mbay mais man de man de technique dëgg dëgg rek euh, gis naa mbay mais Tafa. Mhm. man pour man Tafa gën a technique. <laughs> mais mais mais moo gën a nekk jàmbaar mbay mi. mais bu dee bu man maa ngi fàttali Tafa gi du woon sama mbër mais jëlle bu muy daan Lac de Guiers 1. <laughs> comme li comme li wax rek am na combat moom da ko fooy comme combat daam su geer mooy jubileem ba keroog keroog loolu moo ko daaneel xeeb mm-hmm. xeeb daam su geer mm-hmm. ñëw euh, kii ko bëgg a profité combat bi mm-hmm. waa ji waa ji jàll jël jël boo xam ne nii ci parce que ci kaw air bi la ko la ko la ko la ko la ko tourné waaw euh, leneen li may wax mooy que El euh, Hadj Malick am na wax na ki équipe na c'est-à-dire que man xam nga lu ma nangu équipe nationale laay wax Mhm. c'est-à-dire que man joueur buy joué. Ah, waaw loolu dem buy joué buy joué milieu écran wala sentinelle bokkul ak bu bu parce que bu may joué fekkee un an euh, <laughs> loolu lay joué. dëgg dëgg mais soo ko bëggee indi indi équipe nationale bu ko yóbbu. Ah, yow arrière central. mais pour lan dina jël ay arrière centraux. teg leen ci banc mais mais mais mais quand même y' a y' a problème. y' a problème tey parce a pris contre contre l'Algérie. dafa ñaari joueurs yu nekk ci ay ci ñaari arrière centraux yëpp. parce que du ñu joué loolu seen club. lu ñuy mm. joué par exemple ay mille ay mille. mais bien sûr espace bi ñu créé euh, keroog. ils ont créé un espace très grand. Cheikhou Cheikhou Kouyaté waaw déposé ko waa ji déposé sur la ligne touche. mais kooku bu doon arrière sax. de métier du ko def. ah de métier. du ko du ko déposé. Mm, mm, jamais de la vie Salif Sané. di mm-hmm. waa ji di contrôler ballon bi. bu fermé woon couloir couloir intérieur ubbi ko couloir extérieur. mais waa ji da koo nax parce que ñàkk ñàkk parce que bu laa bëggoon waa ji mais waa ji dafa moom dafa dafa dafa ubbi dafa ubbil waa ji couleur intérieur hmm. euh, intérieur bi ba léegi dafa bu fermé woon couleur intérieur ba pare encore beneen bi encore dañu dañuy dribble benn arrière central mu des kenn donc dafa waroon def marquage de temporisation defu ko ba pare encore mu jaay il était à terre taakale ballon bi bal bi bal bi yéeg donc yooyu yëpp ay dañ ci ay jàngal lañ ci war a jëlee ci match bi hmm. man daal boo ji booy équipe nationale boo jëlee daal da ngay jël ñi nga xam ne léegi ci seen poste munoo am ñaari arrêt hmm. teg leen ci banc bi di jël ay ay ay ay. di jouer ay polyvalence. non non non loolu loolu tamit ça pose problème. bien sûr bien sûr ça pose problème déjà déjà ay am na équipe yoo xam ne Algérie ñun buñ ko mënul gagné ñaari match ñu ko ñaari match mënul gagné te bu ñu waxee ñun non non mais ñaari match mënuñu dugal seen gàllankoor ñoom dugal la ñaari. mënuñu leen mën mënuñu leen de ñooñu mën sax. donc y' a problème man il faut mettre la place. waaw ah, tes choix juste. ba pare les les les meilleurs joueurs ba pare xool te waxtaan ay joueurs yi tamit léegi ku waxtaan ak moom. Mhm. ci ci système yooyu mais loolu yooyu day am. day day am xool nu ko utiliser ba pare Sadio man Sadio toujours li may wax man Sadio ñun dañ koy dañ koy sonal li tax dañ koy sonal Sadio warul ñëw ba suñu buntukaay di marqué si Sadio normalement bu ñu premier tiers bi dañ ko war a économiser. parce que mhm. Sadio il est mhm. beaucoup plus ko accéléré moom waaw moom kenn devant lui kay il est dangereux. mais bu mais nag bu ñu ko koy. évalué au milieu waaw li nga wax de day dajeeg ay nit ñu bari ci diggante bi waaw dafay bari day bari nit milieu bi dafa bari nit balaa muy egsi balaa muy egsi ci ci ci dañ koy gaañ sax dafay dañ koy gaañ day sonn day sonn comme li nga comme li xam nga comme ñun déjà ñun bu ñu tasee équipe yu ay ay ay euh, défense basse on a toujours des problèmes mm-hmm. xam nga c'est comme ay Atlético de Madrid Atlético de Madrid mm-hmm. ñooñu dañ ko tàmb dañ ko mën c' est vrai comme li kii wax euh, at li ko yi c' est vrai que joueur bu ko joué deux ans trois ans presque da nga sa carré lu bëri dafay wàññeeku yow <laughs> parce que parce que dafay métti ay Mourinho ak ñooñu li ñuy bëgg a joué les joueurs dafa métti oh. parce que il faut nga adhéré adhéré ci système bi pour nga mun a waaw li muy def la joueur dafa métti tout tout le monde ne peut tout le monde mm-hmm. ne peut ay ay arrière mm-hmm. Mm-hmm. c'est-à-dire que ñun nag dama li may wax la euh, doyen Pape génération bi bu jeexee jëluñ Coupe d'Afrique bu yeboo ñu xam ne kan moo leen génération yi ñëw du gën a ay génération yi. voilà voilà voilà ah, jërë ah, jërë. voilà jërëjëf Racine génération yi ñëw mun nañ gën a ay génération bii de. Ah, voilà ñu jugal keneen xanaa après deux mille deux nañu am lii. jugal keneen allo waaw. waaw Pape. waaw. waaw waaw moo doon wax fii euh, affaire bi. Mhm. waaw parce que parce que suñu ne suñu ne. Euh, ak central ak central international. Mhm. Kalidou Kouyaté. Mhm. mais Kouyaté ak central moom jeu ànd ak la suba ñu jël ko. Mhm. international. sama yaay rek ma ne koy dégg. Aliou Cissé moo nekk ak jéem. nañ ko bàyyi mu def collection. grand positif la ñu yaay. grand positif la ñu nekk na sax. nañ ko bàyyi mu def collection rek. ñu dem ci jàmm waaw kooku nag dem na moom nee nañ daal mu def mu def sélection bi. bien sûr waaw 88 628 98 98 ngeen di oote euh, seen émission Retro Sport ñoo ngi leen ci wàllu jigéen ñi mais tamit ay poñ yu bëri dégg ci euh, nga xam ne pratiquement. deux à trois heures boo ko defee tu es lessivé. Mm. da ngay soit nga dem bala ngeen dem au clash nga dem sa yoon. Mm. parce que loolu lay joué. ils cinq leen lourdement. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que dañuy sonn. score lañ leen dóor. et te joueurs ils sont obligés de de de de s'adapter dans le système. non c'est obligé loolu lay joué moom. waaw loolu loolu lay joué te benn benn euh, ku ci manqué rek mën nañu problème. non comme c'est tout un système. gisoo ñu leen manqué moo tax seen équipe waa waa ñu. mu ngi noonu mu ngi noonu tout défendre dafa dafa dafa mën trop mais ñoom ils ils savent le faire. oui bien sûr mais nañ ko def. waaw mais c'est c'est dur. c'est non c'est dur c'est. les conséquences sont insoupçonnées. mais bien sûr parce que la. la preuve après da ngay ah, craquer. il te faut un effectif boo xam ne kilométrique ak des types yoo xam ne mën nañ ko def. xam nga li daal euh, Liverpool contre Watford. Mhm. Euh, coono rek la. coono kese la. ils ont subi tout le match. tout le match Watford joué ci ci fraîcheur am. xoolal match. Mhm. man euh, classement ak Liverpool classement. Mhm. ak différence de point bi nekk seen. diggante bien sûr mais dans un match tout est possible. mais leen forcer gagné leen. xam nga loolu mooy charme Angleterre. Mhm. loolu mooy charme Angleterre c'est-à-dire. non une daal Malick boo ko bëggee gagné. Mhm. da koy forcer. attaqué ko. def comme li Watford def. mais toog di xaar ak yooyu. waaw je je sans complexe ak di limité. waaw kooku da perte da koy attaqué bett ko. ndax xam nga dañ leen bett keroog. ndax xam nga euh, Ismaïla Pechnet ko ak premier bi bi nu mu ko dugalee. Mhm. Ah, ak défense su Liverpool. deuxième bi bi muy génn. Ah, bi muy génn parce que. Ah, comme comme comme comme il est rapide il a il a mis oh, sa vitesse. parce que dafa oh. gaaw parce que buy bu def bu bu jéego kii. Euh, Van Dijk man il m'a séduit il m'a séduit mhm. woon ni am na talent boobu. <laughs> mais heureusement que rek mhm. a prouvé tout son talent. Mhm. na ni dans un grand jour il est capable de tout faire comme li ma lay euh, génération foot. man keroog la a jour là. 4 xam ni génération foot moo gagné donc jour la boo xam ni. jeu euh, jeu de vitesse la. Mhm. dafa am point de vitesse. Mhm. les rapides. Mhm. et puis les techniques. waaw mais il doit nag il doit s'améliorer. et s'appliquer et s'appliquer davantage. comme que comme que def na ko. en championnat d'Angleterre. il est capable de le faire avec l'équipe nationale. te loolu daaw ko def. il faut qu'il s'applique daf daan confondre vitesse ba ci bal bi dëgg ba génn mais léegi je crois que euh, am na dosage. on l'a assez conseillé pour lui dire. comme li ñu waxoon euh, Thierno Seydi fii rek. bi mu naan xale euh, il va s'adapter. Mm -hmm. Mais affaire yaa ngi ñëw. Mm-hmm. puisque avant il ne jouait pas comme ça. Mm-hmm. Maintenant il s'est fan lay centré fan lay defee dernière ak fan lay but. te loolu xamu ko woon. te gis nga au début il a début très difficile en Angleterre avec des changements d'entraîneur. il revient à son meilleur niveau. il c'est qu'on attend de lui. Mm, il a des qualités mais il faut il faut mu mettre ko en valeur. parce que moom. war nañ mën a miser wu ci moom pour am dara Assane 88 la 628 98 98 Sport Sud FM seen rajo seen rajo su mu nekk équipe nationale bi. Mhm. parce que auditeurs yi woote yëpp ci la wax. Mhm. mais bu ñu fàtte tamit làmb ji. Mhm. ak tamit euh, xale yu jigéen yi nga xam ni dañu dem ci tournoi UFOA bi. gagné ko pour la première fois une équipe rajeunie. loolu tamit euh, am na solo trop trop ci football féminin bi sans compter xale yi nga xam ne di demoon tournoi. Euh, en Arabie Saoudite. ñu mhm. invité leen. Mhm. ñu dem tamit gagné tournoi ba. U20 yi U20 yi. sans le coach principal sans Youssouf daal parce que. sans Youssouf y' avait son adjoint Aïdara moo demoon. Aïdara moo demoon ay coach Aïdara moo ah, demoon mais dégg nga Youssouf li mu wax. Mhm. que base bu liggéey bi. ñoom ñëpp ko doon defandoo. kenn absenté sax. du wàññi dara. du tere machine bi dox. Mm, du tere machine bi dox. c'est ça une collaboration saine. mais nekk rek ne man la boo fa jógee nag. wala nga absenté. Euh, Sadio Sène muy def mooy il faut responsable. man par le championnat ak tëngeej. position bu mu nekk et tournoi la woon. et tournoi la woon non bu doon compétition day dem. day dem ah, xam xam xam nga daaw. bu doon compétition day dem. bu mu wut ay fédération loolu. bu doon mhm. compétition. Mhm. mooy dem. Mhm. mais nag comme que tournoi la. il a eu confiance à son adjoint. Mm les résultats l'ont prouvé. Issa a, a, a, fait un excellent boulot Issa Aïdara il a non. fait un excellent boulot. non bien sûr un, excellent boulot. non bien sûr un jeune prometteur. non bien sûr boo xam ne yóbbu équipe bi à la victoire finale. la victoire finale c'est pas donné à n'importe qui. ñu jël keneen asalaamaaleykum wa rahmatulah. salaamaaleykum El man maa ñëwaat dama fàtte aussi di féliciter Lyon yi. Mhm. Mhm. ak euh, u yi. Mhm. ak surtout Issa Aïdara. ak demee. ñu la. nga ñëw euh, def ak parcours bu ñu def. waaw vraiment Issa am na am na am na am na am na. Euh, mm-hmm. am na kii mooy parce que vraiment te aussi li ñuy wax lenn aussi il faut ñu xam ko aussi euh, gis nga centre yi. santé am na am na njëriñ trop. ci ah, bu baax a baax a baax. parce que actuellement football Sénégal bi yëpp. l yi fu leen di regroupé rek am na njëriñ. Ah, te xoolee léegi da nga xool centre euh, Jules François Bocandé bi. Mm-hmm. xale yi léegi fa la ñuy nekk fa la ñuy defee seen lépp. Ah, donc donc donc gis nga nga bu nga je me mais at boobu équipe euh, club égyptien bi un milliard de francs CFA la ko jox. Mhm. benn tournoi bu ñu ñëw foofu mooy mooy wane ne. Mhm. xaalis bu mobilier xaalis da koy doxal ak infrastructure. bien sûr non mais mais xoolal ñu bi ñu commencé changé boo demee génération foot bu mu ñëwee ba léegi ñaata la ñaata mu ngi ak ñaata la la gagné championnat ak ko mais li mu am ñoo xam ne li li ko di football football rek ngay def ci suivi médical bu adéquat ak ak ak régime mhm. alimentaire bu adéquat mais yooyu football bi léegi loolu la laaj. loolu loolu loolu dong la laaj. gis nga moo tax ay jaraaf ay jaa sama kër jaraaf ay jaraaf ay jaa mais xoolal jaa léegi ay troisième division c'est parce que li ñu waroon def defuñu ay ñi nga xam ne seen moo doon mascotte jaraaf <laughs> mhm. ah ay ay sayer sec fu ñu moo doon xoolal tey ay jàmbaar nekk ono bu yëpp parce que mhm. ak jàmbaar lañ jógee du du beneen waay ñun waxuñu pour sànni xeer Aliou Cissé parce que football dañuy dégluwaat parce ñun bu sañoon Aliou ñu bu ñu gañee coupe dañu ko gañe ak Aliou Cissé te amul dara luñ koy kii parce que doomu Sénégal la cest que dañuy joxe suñu xalaat rek mais su fekkoon ñooy tànn wala kon kon peut bu waxee li lañ def ñu ko def mhm. mais dañuy wax football rek la wax waxuñu fi leneen lu dul loolu football jërëjëf dañu ne waaw loolu dong la quoi merci jërëjëf merci Racine 88 628 88 18 88 ngeen di oote seen émission Rétro 88 628 98 98 ngeen oote Pape ñu ngi doon wax ci xam nga euh, ci ci wàllu mais tamit euh, y également des jeunes par exemple ku ci mel ni Wagué léegi il commence à jouer avec Nice. Mm-hmm. xam nga tamit euh, choix moo moo mel noonu. non moo ko il a eu tort de à Barcelone. Mhm. kooku ñëpp wax nañ ko. récemment j'ai lu une interview Ismaïla Sarr. waaw boo jógee coupe du monde def coupe du monde bu mel noonu di dem ci équipe boo xam ne remplaçant nga fay doo fa joué Barcelone joué fa c'est facile. mais xam nga il croyait que mën na fa jouer tout le temps. non non wuu kooku de bu ko xalaatee sax ak ñu ko xalaatoo ak ak agent sax def nañ erreur bu rëy Barcelone. Malick Barcelone tamit président Fidila Issa Lay Diop. président du man de banaa la man wax la champion du monde des supporters. man banaa la wax la ak Malick. <laughs> Malick wax la ak moom. <laughs> mais El Hadj Malick. toujours mhm. vraiment très content de vous entendre. Mhm. di nuyu El Hadj Papa Dieng. Mhm. suñu xarit soppi Sénégalais yëpp. su xaritu démb. <laughs> Eh, bu mu xarit gi kay dagg naa ko ba mu jeex tàkk. yaa ngi dégg bàyyi yaa ngi si jàmm. ça va très bien alhamdulilah. ñu ngi leen di ziar bu baax. alhamdulilah. di am toujours mbégte di déglu émission bi. Mhm. xam nga ñun des fois di toog di déglu daf ñu gënal sa di woote. Mhm. mais dafa am ay questions rek ay quelques inquiétudes yu ñu bëggoon ñu discuter ci. Mhm. mais avant dañuy féliciter coach Cissé. bu foot féminin. malgré les contraintes socio-culturelles. tey ñu mën a ba mën a asseoir une nationale bi nga xam ne dafay gagné. et trophées intercontinentaux. Ça, c'est extrêmement ¿eh? important. di suñu di suñu ¿eh? félicité aussi coach Aïdara de ses collaborateurs pour la belle participation. Cela veut dire la fédération a fini de citer les bases de l'orientation du football sénégalais. Donc, moi, comment on se fait Maintenant, dans le cadre la double confrontation, mm -hmm. qui est au souvent c'est des matchs qui ne réussissent pas mooy suñu match avec les voisins la mhm. bon yow peut-être am nga histoire boo fekk entre Sénégal mhm. parce que c'est le même peuple la mhm, moo am esprit fighting bi ñu amee donc nan la war a Sénégal mën a war a match bi parce que à l'aller man je pense que ni on peut même gagner ici ah largement mais le match retour ça peut être difficile léegi yow selon yow wala Pape Dieng nan la ñu war a mën a aborder match boobu est ce qu'il faut que au moins ñu sotti de la double confrontation avec six points parce que xam nga loolu baromètre la aussi pour mën a garder suñu statut de meilleur mm-hmm. de euh, la première équipe africaine mm-hmm. donc loolu ma question moo bëggoon a discuter bi ah, bon man man li ma lay tontu moom mooy yàgg nañoo euh, après chaque match la preuve bi ñu fi joué en 2018 éliminatoire mondial 2018 bi ñoo jiitu Burkina Faso Ouagadougou ñoo ko fa jiitu donc question logistique yi léegi c'est réglé c'est réglé maanaam ñoom fédération bi léegi tàmm nañ organisation. Euh, ak logistique bi sax tàmm nañ tàmm nañ organisation yi léegi. xam nañ ko par exemple bu bu ñu joué nii léegi nga dégg ne mission avancée dem nañ Guinée Bissau pour xool fan lañ dalak fan lañ def comme ça jour bu ñëwee facilement xam na fi muy dëkk kan dëkk lan la def loolu yëpp c'est réglé léegi. liñ koy le problème mooy dañ ci gagné mais yooyu yëpp toutes des questions logistiques c'est réglé. waaw mais naka la ñuy comporté woo ci match aller bi ak ci match retour mais match match aller bi fii à Dakar il faut. surtout ci match aller bi. match retour match aller bi il faut être ku xam Sénégal il faut être à mhm. bi Aliou yore bi ba léegi certes am nañu ay défaites mais défaites yi bariwul. Mhm. donc on a l'habitude de gagner chez nous. Mhm. à l'extérieur tamit boo seetee en général on fait de bons résultats. Mm-hmm. on a gagné en Afrique du Sud. Mm -hmm. on a gagné au, au, au Cap Vert. bien sûr ah, on, a gagné souvent un peu partout. Mm-hmm. tout dernièrement Cap Vert dañ ko mujj gagné donc. Mm-hmm. le Sénégal euh, joue bien à l'extérieur te, te à, domicile euh, on est maître chez nous. je n'ai pas de problème à ce niveau parce que équipe bi comme li Malick wax. dafa mun préparer match léegi ndax xam na lépp. <laughs> xam na match extérieur yi naka lañ koy gérer match à domicile yi tamit xam na nañ naka lañ koy gérer. Mm-hmm. parce que nous avons des fédéraux qui sont là depuis longtemps. Mm-hmm. et qui sont un peu partout. Ah, que tamit ñoom ñoo ñoom ñoo habitué wu di def di dem compétition. Mm-hmm. donc liñ si xam. keneen ku deful temps bi ñu fi def du ko xam. boo gisee li ñu réussir c' parce que dañ dañ fi yàgg. ñu jël keneen dañ fi yàgg. allo donc kooku man aw ci suuf si. Euh, euh, euh, salaam. Lay Maxtaar. comment ça va El Hadj Malick ak Papa Dieng ñoo ngi leen di nuyu. ñu ngi leen fay bu baax maa ngi wootee fii ci Thiès quand même. Mhm. je suis de l'ancienne garde nag parce que man nag euh, Papa Dieng moomu pratiquement on est euh, on est né avant les indépendances. <laughs> <laughs> voilà man daal euh, je viens tout juste c'est à propos de des équipements de l'équipe nationale. Mhm. mais vraiment Pape Dieng war nañ cee wax les verts la là. Mhm. man daal équipement yi daal euh, pour man daal ñun ñi nga xam ne fekk nañu démb ak may wi équipe nationale doon sol ak mayo léegi gi mhm. wax dëgg yàlla war nañ ci xalaataat nañ mhm. waaw ay vert blanc yi man je ne sais pas qu'est-ce qu'il explique pour que équipe nationale du Sénégal à chaque fois on joue avec des verts et ay verts blancs yoo xam ne moom bu rafetoon tax suñu mën a wax <laughs> mais le gens nous confondent avec des Mm-hmm. man je pense que quand même même ci Verdun yi. Mm-hmm. or or hormis le logo kii euh, équipe fédération sénégalaise de football bi. Mm-hmm. bu ci nekkul woon équipe nationale du Sénégal mën na nekk dans un terrain de football. di football sans que xam ne Sénégal yi football. même su fekkee ne les gens maintiennent les verts blancs là mais qu'on mette au moins quelque part euh, ay euh, jaune rouge boo xam ne on est ah, capable de distinguer kii nationalu Sénégal jaune rouge yooyu ah mais parfois on joue en vert parfois on joue en blanc mais comme li nga wax mais mais qu'on nous mette au moins quelque part au moins euh, version rouge boo xam ne au moins les chances seront coûtées kat équipe nationale du Sénégal la mais quand équipe nationale du Sénégal joue on a l'impression que ay Nigérians vraiment ñoo joué man je pense que quand est temps que l'on retourne un tout petit peu à que l'on respecte vraiment nos je ne dis pas que forcément il faudrait que ñu def ay vert ci kaw jaune ci culotte bu kii ak ay yu rouge wala ainsi de suite tout ça on peut jouer avec nos vert vert vert vert vert mais au moins qu'on matérialise un tout petit peu quelque part que l'on mm-hmm. mette un vert jaune que ñu xam comme par exemple en 2002 par exemple mm-hmm. en 2002 yoo xam ne torfakal macha allah. mais vraiment daal ngeen baal ma ci. Euh, kii bi jërëjëf merci solo. waaw ah, wax na lu am solo kay. tam ñu am identité ñu xam ñu xamee ne Sénégal Sénégal mi joué. Mhm. waaw xam nga nag affaire dafa yaatu moom ku nekk ni nga ko gisee rek. ak sa xalaat moom ñëpp xam nañ couleur. waaw waaw. waaw Côte d'Ivoire waxu noppi. am na ku nekk ci ligne bi allo. bonjour allo waaw. salaamaaleykum. maaleykum salaam. Ndiaye. Mhm. oui. bro. ça va bro. ça va alhamdulilah Malick maa leen di lay fay bu baax ñu mais Ndiaye. Mhm. man damay wax ci suñu championnat. Mhm. national. championnat bi faible na trop trop trop trop trop ah trop. waaw. loolu moom. waaw war nañ ko war nañ ko xoolaat. Mhm. suñu championnat faible na. parce que mhm. mënoo nekk neuvième door benn match bëgg ñëw nekk deuxième wala troisième. <laughs> mais loolu est-ce que faiblesse sama équipe ñoo tolloo la. mais non non Malick loolu faiblesse la waay. Mhm. ba pare Malick beneen affaire bi xam mooy lan. nos arbitres là. gis nga ni ñuy fonctionner les entraîneurs. arbitres yi dañ leen war a sanctionner. parce qu'ils sont pas à la match bu yàqu yoo ko yàq. Mhm. dem excellence am na penalty at at bi ne joué loolu mooy lan loolu loolu mën nañu di ay catastrophe ci stade bi. loolu baaxul. Mhm. am na ay sanctions am na sanction de. ah mais li kay dina am sanction te arbitre dañu war a xam seen ñoom alkaati yi dañ leen di ñoom alkaati yi dafa am fu ñu yem frontière bi ñu yem dinañ leen escorter am na foo xam fa ñu yem dañuy ñibbi dañu ñuy liggéey mais ñoom après ñooy des ak ñooy des ak nit dañu ubbi seen xel ñu xool li ñuy arbitré. Mhm. waaw man daal foofu laa mën lu may wax quoi franchement. ok merci bro. 88 628 98 98 ngeen di oote il reste na pratiquement 3 minutes moom ñoo na ci wàllu arbi ñoo na ci wàllu arbitrage bi jo joxe si joxe si xalaatam 88 628 98 98 ngeen oote mais Pape bu ñu discuté ci làmb yi tamit à part Siteu ak Papa Sow amul grand combat bu ñu agité. Boy Niang Balla Gaye 2 c' est pratiquement tombé à l'eau Modou ak Ama Baldé pratiquement euh, a toujours l' espoir am am na espoir waaw bien c'est pas définitif mais il y a. c'est pas c'est pas encore définitif. Mm-hmm. mais ab am na daan absence su grand combat yi am. non bien sûr comme ni mu daan amee Pape Abdou Fall daal moo fi réussir fi mu toll nii. tëgg combat daan na fekk ñu am lu mot ñaar ba ñetti. combat ñetti ñetti grand combat. saison bi ñu doon wax Bombardier ak Eumeu Sène te tombé à l'eau mujjul fenn mujjul fenn Balla Gaye ak ak ak seen biir mënuñu bëri seen biir seen biir xale yi éclore ñoom dañu joxoon chance il faut jox chance xale yi waaw bien sûr Balla Gaye dañ ko ñu ma ah, en 2010 euh, mag ñëpp la bëri waaw bi bi bëri Tyson en bëri na ak Tyson Yékini bëri na ak bëri na ak il a lutté avec tous les ah, anciens donc il a ak ah, Tafa Gueye ah, ak Tafa Gueye donc il a il nañ jox nañ jox chance xale yi mais tamit Pape des fois encadrement bon ils ils ils sont libres. Mhm. ils ñoom nag ñoom ñoo man dama leen koy. ñoo xam ñoom ñoo xam. ñoo xam ñu gàddu ñu gàddu ak cachet ñu demandé mais am na yenn cachet yoo xam boo ko laajee dañu doon ragal man loolu laa jàpp moom. <laughs> ñoo xam ne daal yow sa mbër àggul cent franc nga nañ ko fay quatre cent franc. <laughs> mooy mooy mooy bëgg ba bëri c'est une façon de fuir quoi mais war nañ ko mën a mën a taa parce que. man boobu combat laa doon gën a xaar ak Eumeu Sène ak Eumeu Sène Bombardier Eumeu Sène Bombardier parce que man je suis resté sur ma faim ba ba léegi bien vrai Eumeu Sène il a eu du mérite mhm. gagné ko jël jël drapeau il faut mhm. ñu wax ko mais allo. allo oui. ñu ngi leen di président Seydina Issa Laye Diop maa ñëwaat. Mm-hmm. mooy dëgg mais Malick. Mm-hmm. pas de la logistique. parce mm-hmm. que elle en quantité et en qualité. je parle du fighting spirit. parce que yaa ngi wax léegi ay match euh, Afrique du Sud mais Sénégal Burkina si dara. Sénégal euh, équipe bi nu mujj non pas Sénégal bi équipe bi Sénégal Mali gis nga comment ça comment ça se mhm. Sénégal Gambie comment ça se mhm. moo tax may wax parce que les métti am ay. day métti en particularité. voilà loolu laa lay wax dafay métti. man ni nga wax naa ko de moo tax man le Sénégal est préparé à parce que boo xoolee match yooyu nga tudd yëpp métti métti génn nañ ci. kenn gañewuñ fi à Dakar wala nga gañuñu à parce que Bissau aussi bi Côte d'Ivoire bi ñu Côte d'Ivoire éliminé bi nañu am défaite à l'extérieur te Côte d'Ivoire bi ñu éliminé sax terrain neutre la ñu mhm. donc depuis lors il y a eu des avancées te nag avancées yi boo seetloo logistique bi moo permettre encadrement bi pour ñu mën am ay résultats mhm. te on est habitué à ça maintenant je crois que depuis quelque temps les résultats que nous avons obtenus tant à Dakar qu'à l'extérieur sont des résultats probants tout à euh, ñoo ko mënewoon à quelques minutes du match ci la ñuy benn but presque à la dernière minute même dans les arrêts de jeu. dans les arrêts de jeu dañ def mais gis nga bi ñu demee foofu dañ ñu dugal but ñu égaliser mën leen à la marque dem ba match bi di jeex. gis nga tamit suñu match ak Afrique du Sud parce que Afrique du Sud li tax ma koy cité mooy grande équipe la ça joue bien au football. donc. Laye Makhtar kontaan nañu trop. bon ñun Sénégal mhm. parce que. parce que pour faire un que le Sénégal est lui-même que pendant les grandes occasions. très bien exactement. dañu bëgg grande occasion. voilà exactement. voilà merci beaucoup Seydina. kon mbokk auditeurs yi jërëjëf ñi nga xam ne woote nañu ak ñu bëggoon woote te mujj ñu woote. ñu leen di sant di leen gërëm ci waxtaan bi nga xam ni def nañ ko ak ñun parce que lii lañ bëgg di waxtaan ak yéen ngeen ñu échanger.